أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko tey mu nekk njëlbeenu dars bu ñuy tàmbalee fii ci jàkka ji incha allah ci kàttanu yàlla ngoon gu nekk ginnaaw julli timis ba julli gee comme ni ngeen ko xamee niñ ko tërale woon ci programme bi mooy samedi quran la dimanche mu nekk usulu salaasa altine mu nekk bulughul maram talaata mu nekk qisasul anbiya àllarba lay nekk riyadu salihin insha allah ci kàttanu yàlla ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu nangul ñu bépp jëf buñ fi jëf suñu dars bu njëkk ak yéen ci téere yàlla bi tabaraka wa taala muy suratul fatiha saar bi nga xam ne moom suratul fatiha mu nekk saar bu wàcc màkka ay nekk juróom-ñaari aaya saar bi ci ijma ñu ne juróom-ñaari aaya la nga xam ne ñu ngi ko tuddee alfatiha lu tax moom la ñu ubbee téere yàlla bi tabaraka wa taala mu nekk numéro un ci tartib bi waaye nekkul numéro un ci wàcc bi ci rangé bu ñu rangé kaamil bi nii tàmbalee fatiha jëm naas saar bi mooy un mooy numéro un amma ci njëlbeenu saar bu yàlla njëkk a wàcce tabaraka wa taala jibril indil ko yonent yàlla muhammad du fatiha mooy un iqra mu njëkk a wàcc ñu ñaan bur yàlla tabaraka wa taala mu jàppale ñu ci liggéey bi mu nangul ñu ko buñ ñëwee ñu ne dañuy tafsir suratul fatiha tafsir ci làkku arab ak tafsiru lughatan as-sarh wal bayan mooy firi ak leeral loolu la tafsir di tekki ki lay tafsiral daf lay jéem a firil ak di la leeralal lenn ci ay baat yoo xam ne wala ay aaya yoo xam ne wala ay saar yoo xam ne lënt na la ci téere yàlla bi tabaraka wa taala pour mu jàppandi ba nga mën koo dégg bu fekkee lu yàlla wax la nga def bu fekkee lu mu tere la nga bàyyi su fekkee ci istilaax la ti mooy ci làkku arab ci sharia ci sharia ci diine istilaahan mooy sharhu kalaamullah mooy firit waxu yàlla tabaraka wa taala léeg-léeg nga dégg ci ay nit ñu ne alxuraan kenn waru koo firi am na sax lenn ci sunu réew lu wax ne ay nit ñu wax ne alxuraan kenn waru koo firi soo fekkee fuñ koy firi na la jaral nga ut fas boo xam ne dañ koo solal dàlli weñ nga dawal fas yi ba dàll bi xoosu ba fas bi deemee bul fekke fuñ koy firi ndax sob weesuwul yàlla wax doomu aadama ne daf koy firi xoolal dégg gu bon gi loolu am na lenn ci réew mi ci ñu ko wax ci ay nit waaye loolu réer weesuwul loolu ndax alquran dafa nekk aw dundin yàlla tabaraka wa taala wàcceel ñu ko yonent bi moo ñu ko doon leeralal yonent bi bi mu fi jógee sahaaba yi ni ñu dégge woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko dundee ak di ko leeralale loolu moo continuer loolu moo wéy su fekkoon ne alquran kenn du ko firi kenn du ko leeral kon doomu aadama yi dañuy sànku kon al téere yàlla bi dañ ko war a firi leeral ko lumaza li yif huma pour ñu mën a dégg mën a comprendre muraadullahi taala li yàlla namm ci ñun li yàlla namm lu tax ñuy firi téere yàlla bi mooy ñu mën a xam li yàlla bëgg ci ay mbir yi mu santaane ñu def ko ñu xam li mu tere ci ay tereem ñu daal di koy bàyyi loolu moo tax ñu war a firi téere yàlla kooku benn la ñaareel ci li war a tax ñu war a firi alquran mooy pour ñu mën a jël wa yuxazu bi hidayatihi wa irshadihi ngir ñu mën a jël ci téere bi li muy orienté doomu aadama yi ci ay njub ñu mën cee jub waaye ñu mën cee baaxee su fekkee alxuraan kenn du ko firi nit ñi duñu mën a baax nit ñi duñu mën a jub kon ñaareel li tax ñu war a firi téere yàlla mooy pour nit ñi mën a jub mën a baax ñetteel ci liy wane ne téere yàlla bi tabaraka wa taala dañ ko war a firi mooy wa yu'tabaru bi qisasihi qisasi alquran yi muy nettali nit ñi mën cee dégg yàlla day nettali istuwaaru aadama ni ko yàlla bindee yàlla day nettali istuwaaru iblis ak aadama iblis ni mu ko moyee yàqule aadama ni mu ko moyee yàlla wàcce ko ci kaw suuf istuwaaru aadama ak ay doomam nuux ak ay nitam ba ci ibrahim ak ay mbokkam ak nitam ya nuux kazalik ah Moussa kazalik ba ci yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu salaam léegi nag xissa yooyu nga xam ne moo ci nekk pour nit ñi mën cee comprendre mën cee dégg ku defoon lu baax nga mën a roy ci lu baax li ña nga xam ne defoon nañ ci lu bon musiba dal seen kaw nit ñi bañ a moytandiku def yu bon yooyu loolu moo tax ñetteel ci mbir yi nga xam ne dañoo war a téere yàlla mooy ñu comprendre bu baax a baax ci xissa yi ñu mën cee rajjël ay misaal yu baax a baax a baax li ci baax ñu dund ko li nga xam ne moo ci safaan ñu daal di koy sori ñeenteel ci li war a tax ñu xam ne dañoo war a firi téere yàlla tabaraka wa taala mooy wa yuttaaz bi mawaisihi dañoo war a waaru ci waaraate alquran alquran waaraate gi muy waaraate da ngay dégg léegi doomu aadama yi di xase ay nit daan ne ñii amuñu xam-xam mais ay waaraatekat lañ wala ñu ne ñii waaraate lañ mën waaw alquran dañ ci war a waar nit ñi ndax yàlla moo ko wax tabaraka wa taala fa zakkir bil qurani man yaxaafu waidi alquran nañ ci fàttali ñi ragal yàlla tabaraka wa taala beneen bi mooy yàlla moo yónni yonent yàlla muhammad mu nekk waaraatekat bashiran wa nazir mu nekk kuy bégle waaye mu nekk kuy xuppaati kon ñeenti mbir yi moo war a tax ñun ñëpp ñu war a ànd xam ne waruñoo déglu ñi nga xam ne dañuy wax ne alquran kenn waru koo firi waaye ñun dañoo war a gëm ne ginnaaw ñun ay jullit lañ alquran dañ ñu ko war a firil ñeent mbir yaa ngi noonu bu njëkk bi mooy ngir ñu mën a dégg waxu yàlla tabaraka wa taala ñu mën a xam ay santaaneem def ko xam ay tereem bàyyi ko loolu mooy benn ñaareel mooy ñu mën a jub mën a baax ci téere yàlla bi tabaraka wa taala ñetteel mooy ñu mën a jël ay misaal ci xisas yi nga xam ne moo ci nekk ñeenteel mooy ñu mën a déglu waaraate yi ñu waaru ci ñeent yi moo tax ñu war a firi alquran léegi nag ñeent yi bu fekkee kenn du ko def kon firiwuñu alquran lu muy tekki mooy ñeent yi day réer day sànku su boobaa doomu aadama yi dañuy sànku lan la ñuy firi ginnaaw bu ñu waxee tafsir lan la ñuy firi ana lan la ñuy firi li ñuy firi mooy ay saar assuura ay saar la ñuy firi saar yooyu ay daggit la wala ay xaaj wala lu mat sëkk ci téere yàlla bi tabaraka wa taala léeg-léeg mu tàmbali ñetti aaya wala lu ko ëpp saari alquran yëpp boo leen boolee 114 saar la saar bi ci gën a gudd baqara la bi ci gën a gàtt muy inna aataynaaka alkawsar bu fekkee ci aaya la bi ci gën a gudd mooy aayatu dayn mooy bi nekk baqara wa iza tadayantum bi daynin ila ajali musamman aaya aaya laa wax aaya bi gën a gudd ci alquran mooy aayatu dayn wa ida tadayantum bi daynin ila ajali musamman faktubu boobu moo gën a gudd bu fekkee bi gën a gàtt mudahamatan bu fekkee saar la nag saar bi gën a gudd mooy suuratu baqara bi gën a gàtt ci saar yi mooy inna ataynaaka al kawsar kon aaye ak saar yi du benn kon aaye yooyu ak saar yooyu la ñu war a firil jullit yi pour jullit yi mën koo dégg pour xam fu ñuy teg seen tànk bu dee lu baax la ñu def bu dee safaan la ñu daal di taxaw kon ci saar yooyu njëlbeenu saar bi nga xam ne rangé nañ ko ci kaamil bi mu nekk tartib bi si njëkk mooy suratul fatiha la moo tax ñu tuddee ko fatiha moom la ñuy ubbee alquran bi moom mooy caabi ji moom la ñuy ubbee alquran alkarim te mooy sant yàlla tabaraka wa taala moom saar bi lan moo tax ñu tuddee ko fatiha limaada sumiyat al bil fatiha lu tax ñu ubbee ko wax naa ko léegi moom la ñu ubbee saar bi moo tax ñu tuddee ko ko moom saar bi walaha asmaun kathira am na ay tur yu bare bare bare bari moom fatiha tur yi bari na torop lenn li ñëw na ci alquranul karim ci ay turam bokk na ci ummul quran tudd na noonu fatiha tudd na sabul masani tudd na ummul kitab tudd na sala al imaamu qurtubi rahimahullah wax na ci tafsiram ne saar bi am na isna asara isman am na fukki tur ak ñaar moom saaru fatiha moom saar bii nga xam ne moom mooy fatihatul kitab wala nga ni sab'ul masani wala nga ni quranul azim comme niñ ko waxee moom moo nekk ci première bopp kaamil bi ci tartib bi nga xam ne moom la ñu rangé téere bi moom saar bi juróom-ñaari aaya la waaye dafa ëmb quraan yépp moom saar bi mbooleem maana alquran bu ñuy soxla yàlla tabaraka wa taala dañ ko wax ñu war koo dund moom saar bi def koo ëmb mbooleem doomu aadama lu muy soxla ci biir alquran saar bi ëmb na ko saar bi wax na cosaanu diine yi ak banqaas yi wax na pas-pas yi wax na jaamu yàlla nu ñuy jaamoo yàlla wax na nu ñuy àttee saar bi wax na pas-pasu alaxira saar bi wax na ngëm gi ñu gën a gëm melokaanu yàlla yi tabaraka wa taala mooy al imaanu bi sifatillahi alxusna saar bi wax na ko gëm bi ñu war a gëm melokaanu yàlla yu rafet yi waaye kennal guñ ko war a kennal ci jaamu gi saar bi wax na iyyaka na'budu iyyaka nasta'in ak sukkandiku bu ñu war a sàkk bu ñu war a sàkku ndimbal ci yàlla ak ñaan bu ñu war a ñaan moo tax ñu ne saar bi lépp la ëmb boo soxlaa ñaan saar bi wax na ko jaamu yàlla kennal yàlla kese kese saar bi wax na ko mbirum alaxira saar bi wax na ci pas pasu jullit saar bi wax na ci te xoolal juróom-ñaari aay la moo tax ñu ne dafa ëmb maana alquran moom saar bi 114 saar yëpp li ñuy jàngale soo ñëwee ci biir fatiha da nga ko fay fekk ci wàllu lépp lu ñu soxla ji jullit di ko fas waaye même bu fekkee ne njub la buy yóbbu jullit ci diine mu daal di jub mu gëm dëgg mu tegu ci raay bi nga xam ne moom mooy siraatal mustaqim wala toroxlu bu mu war a toroxlu ci yàlla tabaraka wa taala wala sabaat bu mu war a am ci i ci ngëm yàllaam ah mu am dal saar bi loolu lépp saar bi jàngale na ko saar bi mooy sóobuwaayu nit ñu baax ñi waaye saar bi moo ñu tere ñu war a moytandiku yoonu gaa yi nga xam ne yàlla tabaraka wa taala daf leen a mere ak nit ñi nga xam ne dañoo réer saar bi wax na xeet yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon gis nga li ñuy wax ci dafa ëmb même histoire xeet yi ñu jiitu woon saar bi daan na koy leeral mbokk yi saar bi wax na yoonu gaa yi nga xam ne yoon wi nga xam ne ku ci jaar texe waaye ak yoon wi nga xam ne ku ci jaar daal di réer saar bi am nay ngëneel yu ci nekk muy suratul fatiha jële nañ ci imam ahmad ci hadis boo xam ne ubay ibnu kaab moo ko nettali nee na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàng na ummul quran fa qaala mu ne wallazi nafsi biyadihi ma unzila fi tawrat wala fi linjil wala fi zabur wala fi lquran mithluha wa hiya sabu lmathani walquranu alazim alladi utituhu bokk na ci ngëneelu saar bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàng na saar bi ba pare mu daal di giñ moom yonente bi mu ne giñ naa ci ki nga xam ne sama bakkan bi ci loxoom la nekk yàlla wàccewul ci tawraat wàccewul ci injil wàccewul ci zabur wàccewul ci alquran lu mel ne saar bi bokk na ci ngëneelam ak ci màggaayam moom saar bi benn bis yonent yàlla bi dafa toog rek mu dégg benn lu mel ne dënu lu gërëng-rëngi kaw asamaan yonent bi ne tekk ba ci yàgg mu ne sahaaba yi xam ngeen loolu lan la ñu ne ko déedéet mu ne benn bunt lañu ubbi ci asamaan bunt boobu dey liñ fa jaarale indi ko musuñu faa jaarale lu mel ni moom ñu ne ko lan lañ fa jaarale mu ne al mu ne fatihatul kitab moom yeneen yëpp ci yeneen buntu lañ jaar amma fatiha bi muy wàcc moom jaarul buntu yi yëpp di jaar mais ci beneen porte la jaar ngir màggaayam bu mu màgg bokk na ci ngëneelam da ngay dégg borom xam-xam ñu ne la wàcc na ñaari yoon wàcc na màkk wàcc na midin ndax saar bi màgg bi mu màgg moo tax ñu ne dafa ëmb maana alquran yëpp waaye mbokk yi yonent bi saa salaam nee ne saar bi màggaay bi màgg kenn mu sa wàcce lu mel ne moom ci tawraat lu mel ne moom ci injil lu mel ne moom ci zabur waaye lu mel ne moom ci furqaan moo tax mu ne saar bi mooy sab'ul masani wal quraanul azim bi nga xam ne moom la ma yàlla tabaraka wa taala jox ñoo na ba tey ci sahih bukhari ci ay ngëneelam mu ne anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala li abi said al mualla mu ne ko la uallimannaka suratan hiya azamu suwar sura fi lquran alhamdulilahi rabil alamin hiya sabu lmasani walquranu alazim alladi utituhu yon di boona abu said ne ko dinaa lay xamal saar boo xam ne moo gën a màgg ci saar yi la uallimannaka sura azamu sura fi lquran dinaa la xamal saar bi gën a màgg ci saari alquran yi ban sa lan la ko wax mooy alhamdulilahi rabbil alamin alladi utituhu saar boobu nga xam ne mooy saar fatiha bi nga xam ne moom la ma yàlla tabaraka wa taala jox kon yii ñaari hadis yi day wane ne fatiha saar bu màgg la loolu moo tax ñu waxoon sànq ne gis nga moo tax mu bari ay tur mbir su baree ay tur buñ ko koy limal lim lay won mooy dafa màgg mbir màggaayam moo lay won ne turam yi day bëri gis nga alaxira ay turam dañoo bëri lu tax parce que dafa rëy dafa màgg yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam gis ngeen tur yu bëri la am yàlla tabaraka wa taala dégg ngeen ci hadis ñu ne am na ñaata tur téeméer yu manqué benn hadis bi ne man ahsaha daxalal janna mbir màggaayam mooy wane ne ay turam yu bëri loolu moo tax fatiha saar bu màgga màgga màgga màgg la ci alquranul karim moom saar bi wax nañ ne màkk la wàcc day leeral pas-pas comme ni ñu ko waxee woon sànq day indi ay misaal li gën a màgg ci pas-pas yi nag moom la saar bi di wane li gën a màgg ci pas-pas mooy te mooy tawxid tawxidullah fi fi ibadatihi mooy kennal gi ñu war a kennal yàlla ci jaamu gi nga xam ne moom lañ ko war a jaamu bokk na ci li saar bi di gën a leeral waaye wa isbaati nubuwati rasul sallallahu alayhi wasallam saar bi day saxal yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam yónni gi ko yàlla yónni waaye saar bi dañuy saxalal ne dañu wan ne ni ñu ñëwee àdduna dinañ génn àdduna dem àllaaxira kon dañ ko war a préparer kon loolu mooy ngëneel ak lenn leeral ci ay mbir yi nga xam ne rot na ñëw ci fatihatul kitab lan moo ci tegu mooy al istiaza al istiaza mooy lan mooy bala ngay jàng alquran bëgg nañ nga wax a'udhu billahi minash shaytanir rajim loolu noonu lu muy tekki mooy wax bi jaam bi di wax a'udhu billahi minash shaytanir rajim mooy astajiru mooy maa ngi laqatu a'udhu mooy maa ngi laqatu altaji'u maa ngi móolu maa ngi nëbbatu ci yàlla tabaraka wa taala ci kan pour mu musal la ci lan ci shaytanir rajim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ساي جان القرآن وان كا واخ nga muslu yalla تبارك وتعالى ci alquran ci shaytané pour mu musal la ci mom bala mu la yakal sa jaamu yalla wala sa jang bi ngay jang alquranu karim ma ngi laqatu ma ngi molu di neubatu ci borom bi tabaraka wa taala billah ay bi rabbi kulli shay'in wal qadiru ala kulli shay'in wal alimu bi kulli shay'in wa ilahul awwalina wal akhirin maa ngi nëbbatu di làqatu ci borom bi nga xam ne moom moom moom lépp moo àttan lépp moo xam lépp mooy yàlla yi ñi njëkk mooy yàlla yi ñi mujj yàlla moomu maa ngi làqatu ci moom maa ngi muslu ci moom maa ngi muulu ci moom ci seytaane bi nga xam ne dañ koo dàq ci yërmande yàlla a seytaan iblis waaye déggee ñu ne seytaan rek du lenn lu dul iblis iblis moom nga xam ne dañ koo dàq almatrud min kulli rahmatin dañ koo dàq ci bépp yërmande rawatina nag muy yërmande yàlla tabaraka wa taala kon loolu la aouzu billahi min alcheytan rajim di teg atteem mooy dañ ko sunnaal li kulli man yuridu qiraa shay min alquran sura fa aksar moo xam saar ngay jàng moo xam lu ko ëpp ngay jàng sunnaal nañ ci yow aaya boobu aaya bi ngay jàng wala saar bi ngay jàng bala nga koy jàng nga muslu yàlla ci seytaan ba pare dañ ko yoonal ci yow sunnaal ko nga wax ko comme nuñ ko soppee ci ku mer kama yustahab liman ghadiba aw xatara bi baalihi xatarun su an yastaiza kazalik noon tamit lañ ko sunnaale noonu lañ ko yoonalee ci waa ji nga xam ne dafa mer mu wax aouzu billahi min ashaytani rajim ndax mer gi deñ noonu lañ ko yoonalee noonu lañ ko sunnaale ci koo xam ne dafa ah ci koo xam ne dafa déedéet sunnaal lañ ko ci kuy jàng alquran sunnaal lañ ko ci mer ku mer ak kan ah ku obbali sunna lañ ci moom wax aouzu billahi min shaitan rajim akkan kuy julli day jàng alquran kuy julli day jàng alquran loolu moo tax bala muy jàng alquran mu wax aouzu billahi min shaitan rajim waaye ci yeneen sunna yi sunnaal nañ ko ci kii wax na kuy wëbbali akkan ku bëgg a jàng alquran akkan koo xam ne xalaat bu ñaaw da nga xalaat lu bon toog nii rek seytaane ne la la yow booy da nga war a baali ah booy booy rek waxal aouzu billahi min ashaitan rajim ndax seytaane bàyyi la ku xalaat xalaat bu ñaaw xalaat bu bon kooku tamit sunnaal nañ ci moom muy wax aouzu billahi min ashaitan rajim ndax mu mën a mucc mu mën a rëcc kon gis ngeen aouzu billahi min ashaitan rajim nekkul rek suñuy jàng alquran lañ ko war a jàng mais ndeke am nay place soo meree da nga ko war a wax ndax seytaane bàyyi la ndax mer seytaane moo koy def ci nit waaye boo xalaa xalaatee bu ñaaw war nga wax aouzu billahi min shaitan rajim pour lan pour nga dàq seytaan waaye tamit sopp nañ ko ci yow sooy wëbbali nga wax soo wëbbalee nga wax aouzu billahi min shaitan rajim ñu ñëw ci baatu albasmala te mooy bismillahi rrahmani rrahim albasmala qawlul abd bismillahi rrahmani rrahim mooy jaam bi wax bi muy wax maa ngi tàmbale ci turu yàlla loolu mooy basmala basmala mooy bismillahi rrahmani rrahim lu muy tekki mooy turu yàlla la tabaraka wa taala bismillah mooy turu yàlla benn baat boobu mooy tur bi mooy allah lafzul jalal bi yeneen yi ngay dégg tur yëpp ay ay sifaat la mais lafzul jalal bi mooy bismillah soo ne arrahman sifa la arrahim sifa la ah yeneen yëpp al razaq al karim al aziz al jabbar ay lan la ay sifa la amma tur bi mooy allah tabaraka wa taala jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu bismillah dañ ko sunnaal gis ngeen ci lu bare bare bare bari ci lu dund jullit sooy lekk looy wax bismillah am na dua am na azkar sooy sooy tëdd hatta booy sëy ak sa soxna day dégg ñu ne bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan sooy dugg ci duus bismillah allahumma inni a'udhu bika min al même boo génnee kër gi bay dugaat bismillahi walajna gis nga looy def rek rawatina nag ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne bismillah lépp luñ ko waxul du am barke te sooy compter ci sunu dund lu ñu war a wax bismillah bëri na de booy génn sa kër lay wax bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata sooy duggaat looy wax bismillahi wa bismillahi wa ala rabbina gis nga ci bëri looy wax ci sa dund dafa bëri bismillah sooy sëy ak sa soxna boo lekk da nga wax bismillah ci mbiru liggéey yi xataa boo yéeg ci oto soo yéeg looy wax bismillah boo duggee ba toog ci fauteuil yi nga doog a jàng askar bi subhanallazi kon bismillah mu ngoog mooy maa ngi tàmbale ci turu yàlla yàlla tabaraka wa taala lépp lu ñu tàmbale ci turam loolu day am barke amma lépp loo xam nente ne tudd ñu turu yàlla loolu barke du ci am kon ñu xàmme ko noonu xam ne bismillahi rahmani rahim li muy tekki bismillahi mooy maa ngi tàmbale ci turu yàlla al ilah yàlla mu ngoog arrahman min asmaillahi taala gis nga moom arrahman ci turu yàlla yi la bokk rahman yàlla tabaraka wa taala moo tas yërmande ci àdduna ñépp bokk ko jullit ci la bokk yéeféer yi ci lañ bokk rabu àll yi ci lañ bokk lépp ci rahmaan lañ nekk amma rahim nag yàlla tabaraka wa taala allaaxira jullit ñi dong la ko la ko jagleel moo tax nga dégg ñu ne rahmaanu dunia rahimul axira ah rahmaan ñépp a ko bokk fii ci kaw suuf amma rahim jullit yi dong dong dong dong la ko yàlla jagleel allaaxira mu ne lu tax jullit bi doo wax bismillah ci lépp lu muy def mu koy jàng mu naan bismillahi rahmani rahim mustainan bihi azza wa jal mooy lan pour nga sukkandiku ci yàlla nga appiwu ci yàlla nga am doole tey boo doon jóg nga néew doole ngay appiwu ci kenn wala nga appiwu ci yat wala miir bi nga wéeru nga appiwu ci yow jullit bi nga xam ne yaa ngi def dara nag nga wax bismillah mooy maa ngi sukkandiku ci yàlla ci mbir mii may def loolu dama yaakaar ne jullit bu pas-pas mbir loolu waru ko fàtte ginnaaw jullit bu xam yàlla tabaraka wa taala ci ay jëfam yëpp dafa am benn xale boo xam dafa feebar kenn la ci doomu mbokk yi bi mu feebaree ñu yóbbu ko principal di ko defal ñuy jël ñu koy jëlal deret xam nga xale bu ndaw veenam sidit yi lu gaaw a génn waa ji takk dóor def lu nekk jam jam fu nekk ci loxo ndeyjoor bi génnul mu daal dem loxo droite def ba sonn affaire yi génnul mu xaw a jaaxle papay xale bi ñëw ne ko lan la da nga am problème mu ne waaw xale bi veine yi ñëw bañ a génn bi mu takkaatee loxo ndeyjoor bi di xool xale bi ne ko ndax wax nga bismillah xale waa ji daal di waaru mana bismillah mooy jullit bi day sukkandiku ci yàlla tabaraka wa taala pour def li muy def ci lu mu mën a doon nag booy lekk booy naan lépp lu mu mën a doon ci liggéey lépp lu mu mën a doon xataa booy bind mu mun la indiloon këyit nga war a bind nga teg big bi da ngaa war a wax bismillah ndax li ngay bind baax mu daal di am barke loolu moo tax bismillah ab jullit waru ko fàtte ginnaaw ndax lan da ngay sukkandiku ci yàlla tabaraka wa taala ci mbir mii ngay def ngir yàlla tabaraka wa taala daal lay dimbali dafal la ci barke lan mooy àttee wax bismillah mu ne yoonal nañ mashruun lil abd ay matlubun minhu dañoo yoonal ci jaam bi wala ñu sàkku ci moom ah muy wax bismillah inda qiraati kulli shay'in min kitaabillahi taala dañoo yoonal ci jaam bi saa yu waree jàng alquran mu wax bismillah saa yoo waree jàng alquran nga wax bismillah tur yàlla tabaraka wa taala ba mu des ba mu des fan fan rek ngay jàng doo wax bismillahi rahmani rahim suratu tawba amma feneen foofu yëpp da ngay wax bismillahi rahmani rahim ba mu des suratu tawba waaw amma nag foofu tamit ci suratu tawba li nit ñi di wax ne loolu bu ko kenn dégg naan saar yi dañoo demoon xeex yi eh, suratu tawba ñu daal di sàcc bismillahi rahmani rahim yi daal koy def ci suratu nam li loolu moom wax dëgg yàlla nekkul sax wax yoo xam ne yenu na maanaa waaw ay ay mbir la yoo xam ne yooyu ku jullit bu gëm yàlla tabaraka wa ah waaw waaw bismillahi rahmani ñu ne ñu ne bismillahi rahmani rahim boobu dégg suratu nam li ñoo ngi ko sàccee ca suratu tawba daal di koy dugal fii kan ma ko sàcc man loolu du wax ju yenu ma kan ma ko sàcc kan kan ma koy sàcc dugal ko foofu kon yooyu ay waxu picc la yoo xam ne wax dëgg yàlla saxul wérut noonu la saar bi wàccee Euh, fële tamit innahu min sulaym ana wa innahu bismillahi rahmani rahim loolu tamit noonu la wàccee noonu la wàccee noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale noonu la ko sahaaba ak salafu saali bàyyee ñun tamit loolu moo ñu ci war amma di ci wax loo xamante ne xamoo ko ci loolu bàkkaar dong la lay yokk foofu rek waaw bu fekkee ci julli yi juróom la sunnaal nañ ci jullit bi même ci julli même ci julli julli bi day wax bismillahi rahmaani rahim léegi nag mu des ndax da nga koy wax ci kaw wala da nga koy wax ci suuf amma wax gi moom ñëpp a koy wax léeg-léeg nga dégg ñu ne la yéen yéen diw yéen ñoom diw misaal yéen ibaadu yi su ngeen di julli du ngeen wax bismillahi rahmaani rahim yéen alhamdulilahi rabbil alamin rek ngeen di wax ah déedéet amul kuy julli te du wax bismillahi rahmaani rahim léegi nag mu des kii da koo wax ci kaw kii daal di koy wax ci suuf ki ko wax ci suuf xëy na da nga koo déggul rek gis nga même ci même màkk sooy sooy faral di déglu ni imaam yi julli bu ñu bu ñu waxee bu ñu leqaamee pare ba ñu ne sawu wa atadilu wax seen wax yooyu ñuy wax pour nit ñi jubal sàppe yi bu ñu ne allahu akbar ba jàng du al istifta di nga dégg lu sew yenn saa yi ay micro bi suuf génne ay étincelle yu def te di kenn yenn saa yi sax nga dégg ñoo xam ne dana doog a wax alhamdulilahi rabbi ça veut dire que même ñoom dañ koy wax mais ndànk lañ koy waxee lu tax ñooñu ñu ne ñi ko ñiy wax ndànk bismillahi rahmaani rahim ñooñu dañoo wax ne bismillahi rahmaani rahim bokkul ci fatiha ñi nga xam ne dañuy wax bismillahi rahmaani rahim ci kaw nga dégg ko ñooñu dañu ne bismillahi rahmaani rahim ci fatiha la bokk lii rek moo indi tàqali ko mais amaa wax gi moom ñëpp a koy wax bu leen yaakaar ne am na kuy julli te du wax bismillahi rahmaani rahim loolu ngeen dégg ñu naan la ibaadu yi bu ñuy julli du ñu wax bismillahi rahmaani rahim loolu wax ju yàqu la dañ koy wax waaw ñi ne bismillahi rahmaani rahim dafa bokk ci fatiha ñooñu bu ñuy julli ñoom ñooy wax bismillahi rahmaani rahim daal di jàng alhamdulillahi rabbil alamin nga koy dégg ñi nga xam ne dañu ne bokk ci fatiha mi ngi tàmbalee alhamdulillahi rabbil alamin ñooñu ngay dégg rek seen alhamdulillahi rabbil alamin daal di génn ci micro bi ci kaw daal dem wala dalil amin mu ngoog waaye amaa wax gi moom jullit ñëpp danañ ko wax ci kattanu yàlla tabaraka wa taala mbokk yi naka noonu lañu sunnaale ba tey ci jaam bi mu koy wax suy lekk suy naan buy sol yére buy dugg ci jàkk gis nga booy dugg ci jàkk la yo bismillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah daal di dugg bismillah moom fépp lañ koy wax ab jullit bu gëm yàlla tabaraka wa taala dañ koy yoonal ci moom ci mbooleem jëfam yu muy jëf yépp muy jiital bismillahi rahmaani rahim wax naa léegi lan moo tax ñu yoonal ci yow sunnaal ko ci yow ngay wax bismillahi rahmaani rahim lu tax mu tax déedéet lu tax mooy da ngay sukkandiku ci yàlla da ngay wéeru ci yàlla tabaraka wa taala ngir nga am doole ngir li ngay wax mu daal di mu daal di am barke ngir mu ngoog mu ne naka noonu noonu lañ soppee ci jullit bi mu koy wax ci lekk di ko wax ci naan di ko wax buy dugg jàkk di ko wax buy yéeg ci oto di ko wax ci mboolem mbir yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax dafa wax ne bépp mbir boo xam ne waxuñ ci bismillahi rahmaani rahim mu ne mbir moomu du am barke naka noonu lañ soppee ci jullit bi muy wax bismillahi rahmaani rahim suy rendi wala muy loj sooy rendi wala ngay loj tamit da ngay wax bismillahi rahmaani rahim booy rendi xam ngeen ne yàlla tabaraka wa taala daf ñoo tere ñuy lekk loo xam ne waxuñ ci turu yàlla tey bu nit indi woon xaram di ko rendi daan ne maa ngi koy rendi ci barke diw wala maa ngi koy rendi ci turu diw loolu dafa métti kenn du ko lekk amma booy rendi nag am na ñaan buñ la jàngal ne moom ngay wax ginnaaw boo waxee bismillah al bu fekkoon ne tabaski la allahumma inna hada minka wa ilayka yàlla lii ci yow la bàyyee ko woon yàlla yow ci yow lay dellu sooy rendi loolu ngay wax nga daal di rendi daal ne bismillah daal di rendi amma ñëw rek rey te waxoo bismillah loolu mbir di la xam ngeen ne alquran daf koy tere mbokk yi kon bismillah mu ngi noonu ngeen gis ne xéewal yi ci nekk ak barke yi ci nekk ci dund jullit mi bismillah ànd ak ñun fépp fu mu mën a doon ci lépp lu ñuy def kon war nañ cee góorgóorlu ñu tàmm ko ba lépp lu ñuy def ñu wax bismillah ak ñu ñëw ci alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi cant ñeel na yàlla rabbil alamin moom yàlla mi nga xam ne moom mooy bërëm mbindeef yi alhamdu alwasful jamil melokaan bu rafet wa thanaau bihi alal mahmud zil fadail wal fawadil kalmadihi wa shukr alhamdu sant ñeel na yàlla tabaraka wa taala mu nekk melokaan bu rafet ak tagg goo xam ne yàlla tabaraka wa taala moo ko moom kenn moomu ko kudul moom yàlla rek tabaraka wa taala moom moo moom loolu mu nekk melokaan bu rafet ci moom mu nekk cant goo xam ne moom dong moo ko moom moom mi nga xam ne moom mooy borom xéewal yu mat yi moom mi nga xam ne moom mooy borom cant gu yaatu gi moom yàlla tabaraka wa taala loolu moo tax jullit jamono bu nekk muy wax alhamdulillahi rabbil alamin yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam yoroon na ñaari ngànnaay ci jamono su mbir neexee ak su mbir naqaree su neexoon day wax alhamdulillahi alladi bi ni'matihi tatimmu salihat su mettee mu ne alhamdulillahi ala kulli xaal gis nga ñaar yëpp sant yàlla tabaraka wa taala la su neexee nga sant yàlla su mettee nga sant yàlla loolu mooy wane ne jullit bi gëm na yàlla tabaraka wa taala loolu mooy wane ne jullit bi pas-pasam wér na ndax lépp lu lu muy lu ko dal fan la bàyyee ko ci yàlla tabaraka wa taala bul yaakaar ne sa diplôme yi am na lum la may bul yaakaar ne sa doole ji am na lim la may bul yaakaar ne sa pexe am na lum la may bul yaakaar ne sa kàttan am na lum la may bul yaakaar ne sa wér gi am na lum la may déedéet am na ku la gën a wér te amul dara am na ku la ëpp xam-xam amul dara am na ku la ëpp pexe amul dara am na ku la ëpp doole amul dara kon lépp loo am ci yàlla tabaraka wa taala na nga ko delloo yàlla moo tax ngay wax alhamdulillah rabbil alamin maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moom mooy bërëm bindee fii al alam kullu ma siwa allah fa huwa alam lépp lu dul yàlla rek mbindeef la yàlla moom moom mbindeef yëpp adduna bi yàlla mooy boromam tabaraka wa taala loolu moo tax ñu war ko sant suñ ñëwee ci baatu rabb mooy asayid rabb mooy sang bi almalik almuslihu almaabudu bi xaqin jalla jalaaluhu loolu mooy baatu rabb baatu rabb li muy teg mooy ki moom ki yar kii buur kii bind kii yéwénal yépp ki ñuy jaamu ci dëgg loolu mooy baatu rabb su ngeen ñëwee ci qul a'udhu bi rabbin nas da ngeen di fekk yàlla tabaraka wa taala mu jël ñetti ñetti melokaan yi nga xam ne moom moo ko moom yëpp mu jox ko bopp boppam da ngay dégg mu ne qul a'udhu bi rabbi rabb kan mooy rabb borom mu ne waat ilaahi gis nga mu ñëwaat mu ne malik ñett yëpp yàlla la moom mooy rabb moom mooy ilaah moom mooy malik baatu rabb nag mooy ki yar rabbi naas gis nga moo yar nit ñi ku ku la yar lu mu lay defal ki la yar lu mu lay defal dina la jox nga lekk dina la jox nga naan dina la sàng dina la faj dina la aar lépp moo la koy defal parce que moo la yar tey bu ñu la joxoon xale bi ne la jox nañ la ko yar ko ça veut dire que léegi xale bi lépp xataa sangam sax yow yaa koy sang ko mënu sang boppam instant bi yow yaa koy sang soldat la sax yow yaa koy solal loolu mooy baatu rabb yàlla moo lay defal lépp bul yaakaar ne yàlla nag tabaraka wa taala nuroowul ak ñun xam nga kii am na fu muy egg tuuti léegi li nga ko doon defal yàlla nag ba léegi nii moo lay defal lépp yàlla ba instant bi nga toog nekk paa am sikkim moo lay defal lépp sa bët bii di xool da nga yaakaar ne yow yaay gisal sa bopp ku lay gisal sa bakkan bii di nooy yi da nga yaakaar ne yow yaa xëcc ngelaw li rek mu ñëw sa gémmiñ gii di wax da nga yaakaar ne yow yaay rek daf la neex rek nga toog bu la neexee nga wax bu la neexee nga noppi sa nopp yi di dégg lépp yàlla moo la koy defal tabaraka wa taala sa loxo yi di yëngu articulation yi da nga yaakaar ne yow yaa moom sa bopp rek bu la neexee loxo yi dem tànk yi kazaalik loolu moo tax nga xam ne yàlla mooy sa borom moo la moom gis nga bis bu ko neexee day xëy da ngay xëy rek nga ne las tëdd ñëpp ñëw pourtant bët a ngi nii waaye dootul gis nopp a ngi nii waaye bakkan baa ngi nii waaye gémmiñ gaa ngi nii waaye tànk yaa ngi nii waaye pourtant yëpp a ngi nii mais xam nga lu tax tey ki ko moomoon moo ko téye moo tax dootul yëngatu ñu wooy médecin bi gën a fort mu ñëw teg appareil yi def affaire yi taal ordinateur yi yenn saa yi sax ñu jël oxygène bi ngelaw li ngay nooy ñu jël oxygène teg masque bi fii di pompe après day pompe ba caag mu daal di xool daan ne ça y est ça y est ça y est jeex na kon yàlla moo moom mooy rab yàlla mooy boroom mooy yar kenn warul xëcc ak moom loolu tabaraka wa taala suñu xamoon loolu rek dañuy noppalu baatu rab al alam jamu alamun wa huwa kullu ma siwa allah taala soo déggee al alam mooy lépp lu dul yàlla tabaraka wa taala loolu alam la jëlal benn misaal ka alamil malaika comme malaaka yi dafa am monde bu ñuy dund alamul jinn jinne yi dafa am monde bu ñuy dund alamul ins nit ñi dafa am monde bu ñuy dund alamul xaywaana xaywaan rabu àll yi dafa am monde bu ñuy dund wa alamul nabaat gàncax yi dafa am monde bu ñuy dund ñaata monde la te monde yi ñuy wax yëpp benn nuroo wacc sa morom malaaka yi àddina bi ñuy dund nuroowul ak jinne yi àddina bi ñuy dund jinne yi àddina bi ñuy dund nuroowul ak ji nit ñi àddina bi ñuy dund nit ñi àddina bi ñuy dund nuroowul ak mala yi àddina bi ñuy dund mala yi àddina bi ñuy dund nuroowul ak gàncax yi àddina bu ñuy dund te benn bu ci nekk àdduna la malaaka yi ban àdduna la ñuy dund ñun lan ci lan la ñuy dund bakkan malaaka yi amuñu bakkan ah biñ déggee yàlla mu ne kullu man alayha faan ku dëkk àdduna da ngay dee malaaka yi dañoo kontaan tëb zibile kaw asmaan daan ne ñun duñ dee ñu ne leen lu tax ñu ne yàlla nee na ku dëkk àdduna yow yaay dee ndax yàlla nee na kullu man alayha faan ñun las naa sukkaanul ard wa innama nahnu sukkaanu sama ñun asamaan lañ dëkk ñun duñ dee yàlla mu ne kullu nafsin zaiqatil mawt malaaka yi cëppi cëppi na daan ne nahnu lasna anfusan wa innama nahnu arwahun muqaddasa ñun duñu ay bakkan ñun ay ruu lañ ñun duñ dee kon ñoom dëkkuñu suuf amuñu lan ah amuñu bakkan ñoom ay ruu yu sell lañ waaye keroog ba yàlla ne kullu shay'in haalikun illa wajh lu dul yàlla rek da nga dee keroog la malaaka yi xam ne ñoom danañ dee ndeysaan ah waaye monde yi ñuy dund du benn lu tax du benn nit day lekk di naan jinne day lekk di naan ndax malaaka day lekk di naan malaaka du lekk malaaka du naan malaaka am du góor du jigéen arab yi ak yéeféer yi ñoom naan malaaka yi doomu yàlla yu jigéen lañ waaye malaaka ah ay jëmm lañ yoo xam ne yàlla moo leen bind ci leer du ñu mooy yàlla aussi xoolal doomu aadama day mooy jinne day mooy kon ñee monde gi ñuy dund nuroowul ak doomu aadama yi monde bi ñuy dund nuroowul ak jinne yi beneen bi mooy malaayika mën na soppeeku nuroog nuroog nit ndax jibril bu daan ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na melokaanu sahaaba bu mu doon jël sahaaba nu mu tudd mooy dihiyatul kalbi noonu la melokaanam daan jël jàng ngeen hadis omar omar nee na toog nañ ci jàkk yonent ba càgg rek benn waaye ne tëll kenn ci ñun xamu ko waa ji laa yura alayhi asaru safar kenn gisul ci moom jeexitalu ku tukki wala yaarifu minna ahad kenn ci ñun xamu ko mu daal di toog ci kanam yonent bi nii ma toogee la toogee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jël ay loxoom daal di koy teg ci lupp yi mu ne nii ni yonent bi toogee la toogee gis nga muy jàngal tegginu kuy ut xam-xam ñun léeg-léeg nga dem ci daara yi di ut xam-xam nga ñëw yow yow taalibe bi nga toog ci suuf si nga toog ci kaw sëriñ bi toog ci kaw sëriñ bi toog ci kaw nga toog ci kaw wala yow sax nga toog ci kaw sëriñ bi toog ci suuf wala sa leneen nga toog tàllal say tànk écarté ko fële wala leneen sa yow nga toog xoolal keroog waa ji li mu doon jàngale waa ji li mu doon ñi ñi ñëwoon fi semaine bi li ñu doon jàngale ne ñoom fële bu ñu lay jàngal hadis sax wala ñu lay jàngal alxuraan sa bouton yi boo ko tëjul duñ la jàngal nee na téere foofu kenn du ko teg ci siyaada ci suuf comme ñun nii xoolal sunu aada fii ñun pour ñun lii du lii du dara xon naa leen ko fi yeen kaaba gi damaa teg téere bi ci ba siyaada bi rek ñu yuuxuma xala waa ji keroog li mu jàngale ci teggin bu doomu aadama bu ñuy jàngal jullit yi nga xam ne jullit yi ndeysaan tey suñ meloon noonu ah ni ñu wege seeni borom xam-xam jibril keroog noonu la ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam loolu li mu ci bëgg wax mooy malaaka yi dañuy soppeeku waaye xam ngeen ne jinne jinne ñun jinne daf ñuy gis te ñun duñ ko gis yàlla wax nañu loolu tabaraka wa taala kon kenn ku nekk ci ñoom monde bi ngay dund ak ñun monde monde bi ñuy dund du benn ñoom dañu nekk ci beneen àdduna ñu mën a soppeeku ñun doomu aadama moom du soppeeku léeg-léeg nga dégg ñu ne diw de day soppeeku saa yu dégg ñu ne diw soppeeku na daa naan sàngara de waaye du amul ay laaf dinaaw diw day soppeeku bul dégg ne day soppeeku dafay day diw nit guddi la léeg-léeg nga dégg nit ñi nit ñi naan diw benn bët la borom benn bët saa yu déggee ku ñu wax loolu rek mooy dañ koy tuumaal ne moom am dëmm la te xam ngeen dëmm islam am na lu mu ci wax dëmm am noo la amul ah ah dëmm am noo la amul ah yéen du ngeen ma tontu kon da ngeen gëm ne dëmm am na dëmm amul ah dañ koy tooñ da ngay dégg ñu ne diw dañ koy tooñ ko dañ koo tooñ ça veut dire que du dëmm dañ koo tooñ te dëkk boo dem kiñ naan fa dëmm la amul xaalis amul ay mbokk yu bëri këram kër gu doy waar la amul lu mu lekk amul nu mu lu mu naan ku xiif la rek ñu ne dëmm la mais ku ñu xamal ne kii ah kii doomam kat dafa bokk ci nguur gi wala kii kat nangam wala kii ay mbokkam rek kenn du la wax dara même bu doon moom nga sax du la wax dërëm waaw seet gis moo tax li mbokk bi wax mooy dëgg mooy dañ koy tooñ dañ laa tooñ waaw mais nit moom du soppeeku nature bi ko yàlla bindee nit mënul dund feneen yàlla nee na min ha xalaqnaakum fii laa leen bind wa minha wa minha jeex na kon doomu aadama fii la dund fii la mën a dund munoo dem beneen monde boo xam doomu aadama yi dégg nga ñu ne naaw nañ ba ci kaw asmaan mais bu ñuy dem foofu sax dañuy yóbbaale lan oxygène bu ñu nooyi kon monde yi nga xam ne moom mooy monde malaayika wala moom mooy monde jinne wala moom mooy monde nit wala monde rabu àll wala gàncax yi du benn xoolal gàncax yi melokaan bu doy waar la ci yàlla di wane da ngay am tool bu toll ne taraasu jàkka ji nii tool bi nii la tool nga def fi ay façon garab nga def fi garabu kaani def fi garabu lingom def fi garabu naajo def fi garabu jaxatu def fi garabu mango def fi banaan te yii yëpp tusqa bi ma in waahid benn ndox lañ koy roose benn ndox lañ koy roose waaye est ce que jaxatu ak kaani ñooyam kaani dafa déedéet waxul de dafa saf jaxatu naajo dafa saf sukkër nawe dafa lewet lingom dafa forox weexul dafa forox te yii yëpp ba ñaata ndox lañ ko roose teew boo doon ataay léegi léegi nga def ñeenti baraada nga def ci ndox bii nga def ci lingom bii nga def ci xorom bii nga def ci suukar yii bii defoo ci dara après nga xiim bi nga def suukar lu muy saf bi nga def xorom ah lu sax léegi nag lekk bee ba mu ñoree ci garab yooyu ba mu ñoree bii nga lekk mu am suukar bii nga lekk mu weex bii nga lekk mu saf bii nga lekk mu forox kan moo ci def kan moo ko def loolu dafa am dafa am koo xam ne bi nga koy ubbi da ngaa ñëw ubbi mango bi nga def ci suukar ba nga xam ne yéen nga tëjaat ko nga ñëw nga dagg nga ni nit ñi lañ lekk xoolal xoolal ñooñu lu ñuy dund benn ndox lañ koy roose te su màggee bu ñuy lekk lépp benn façon bi la li yàlla wax bii dafa wex day wex bii dafa forox dafa forox bii dafa nangam dafa nangam kon àdduna boobu yooyu di dund du benn ak ñun suñu àdduna bu ñuy dund mbokk yi suñ ñëwee ci maana alhamdulilahi rabbil alamin maanaam kese moom borom bi tabaraka wa taala mu ngi xamal ne anna jamiil anwa al mahamid min alsifat aljalal walkamal hiya lahu wahdahu borom bi tabaraka wa taala mu ngi xamal ne mboolem melokaanu sant moom yàlla tabaraka wa taala moo ko moom yu màgg yi ak yu mat yi moom dong tabaraka wa taala moo ko yeyoo is huwa rabbu kulli shay'in wa xaaliquhu wa malikuhu ndax moom yàlla mooy borom lépp yemul ci mooy borom lépp waaye wa xaaliquhu yàlla bind lépp waaye wa malikuhu yàlla moom lépp gis nga ñetti baat yi mooy yàlla bind lépp yàllaay borom lépp yàlla bind lépp yàlla moom lépp loolu neex naa dégg léeg-léeg nga dégg ku ne sama kër gi kër goo gis am na ko moom de waaye may ko téeméeri at rek boo fa jaaraatee ku moom kër gi keneen mooy ñëw jënd kër gi waxuma la mu jënd ko mais gis nga waa ji la mu fekkoon dafa fekkoon waa ji def fa benn néegu ñax bu rafet ba ku romb néegu ñax bi taxaw taxaw waa ji bu ñëwee lu muy def day indi ji sareet tegg néegu ñax bi teg ko ci ne ko demal ba ginnaaw géej nga sànni ko foofu mu ñëw tabax falan daal di fay daaj baraag bu rafet ay at ñëw benn waay ñëw jënd foofu teggi baraag bi ay at ñëw beneen waay ñëw teggi baraag bi lu mu fay def def ko ardoise balaa nga ne terrasse ardoise beneen jamono ñëw benn waay ñëw ardoise bi mu def ko lan jamono ñëw benn waay ñëw teggi te ardoise bi def ko terrasse bi mu def ko étage am na koo xam ne sax day jënd kër léegi bu ñëwee da koy rasé tibb suuf si sànni dóor fa benn château ana ki ne woon moo ko moom ñaati nit ñoo ko moom ci ci gàtt gàtt bi kon yàlla moo ko moom walillahi miraasu samawat yàlla leen asamaan ak suuf maa koy donn man yàlla maa ko moom ku ne maa ko moom rek di nga dégg mu dee loolu sax dafa sori takkal jabar rek 2 mois 3 mois 4 mois 6 mois 2 ans 6 ans 8 ans 9 ans 15 ans nga dee keneen ñëw takk da nga daan wax sama jabar léegi jabaru kan la ah ah ana sa jabar du yaa doon wax sa jabar la waa ji du yem sax takk sa jabar mais tëdd sa kaw lal lay tëdd ne nii jàkkaarloog sa fenêtre daan ne sa jabar sa waa ji sa kon la rek xoola fenêtre bi mu def fii fii la ko doon def jabar ji ne ko dëgg la kay ah allahu akbar wala te sa kawlal boo mooy tul lay tëdd kon ana yow li nga reewoon yaa ko moom fii doomu aadama moomu fi dara lépp dañ la ko abal moo tax yonent bi ne wama waykat bi mu ne wamal maalu wal ahluuna illa wadaay fala budda yowman an turaddul wadaay nee na alal ji ak doom yi yàlla dala ko dénk bisa ngi ñëw lim la dénk daf koy jëlaat da nga ko dénk rek ah ñaateel nga dégg fi ñu naan sama alal après dañuy dee daal ko fi bàyyi kon moo moo fi dara yàlla tabaraka wa taala moo ko moom allahu akbar ndax lan luy wane ne moo ko moom moo koy mujjee moo koy donnaat ana nga yow yaa nga àllaaxira waaye wa xaaliqu yàlla bind mbir yi borom bi tabaraka wa taala daf ñuy wax ci alquran misaal yu doy waar mu ne ini lazina tad'una min dunillah lan la wax lan yaxluqu zubaaban gaa yi ngeen di wax ay yàlla lañ naan ñoo moom ñoo def nangam yàlla nee na ñooñu binduñu sax weñ weñ xam ngeen weñ weñ ñii di naaw yàlla nee na ñoom defaruñ ko te nee na ñoom ñëpp bu ñu àndoon mus munuñoo defar lu mel ne weñ te sax lu garaaw mooy bu weñ coppati woon ci seen góom dara munuñoo fexe ba weñ bi ñu jàpp ko mu delloosi ko wallaay alxuraan daf ñuy jox misaal yoo xam ne bu ñu jàngoon alxuraan kon kenn ci ñun du bokkaale ñun ñëpp dañuy normal dafa am ñoo xam ne ñu ngi leen tuddee lu suusul imaan ah xam nga dafa am lu suusul jawaala am lu suusu lan lu suusul maal am lu suusu am na lu suusul imaan ñoo ñoo gën a bon ci sàcc yi mooy ñiy sàcc ngëm yàlla sa kalfe bii buñ ko post buñ ko tafoo mën nga amaat kalfe même couleur même marque ah façon bi nu mel mën nga ko amaat sa yére bi buñ ko sàccee mën nga amaat même façon sa portable buñ ko sàccee mën nga amaat même façon mais bu ñu sàccee sa ngëm yàlla pare nga sa ngëm yàlla kuñ ko sàcc pare nga dootoo baax ba ba nga àdduna di jeex dootoo amaan ngëm yàlla ba àdduna bi di jeex te nag doomu aadama yi tey ñu ëpp ci ñoom dañoo sàcc seen ngëm lu tax ñu sàcc seen ngëm mooy dañoo sukkandikuwul ci yàlla waaw borom bi tabaraka wa taala mbokk yi moo bind lépp xaaliquhu moom moo ko bind ndax gis ngeen ci ku bind dara ñaar dafa am bind ak so ak lan ak fent doomu aadama day fent rek mooy lan ñoo fent tabax bu bees wala oto bu bees wala portable yi ah amma bind yàlla rek moo koy def tabaraka wa taala doomu aadama nag mun na créer lu bees créer créer waaw yu bees yi créé wu sax yàlla defal nañ si ne.
mu ngoog am na benn borom xam-xam bu mag bu bu bu defaroon benn mbir benn machine bu doy waar mu woo mu woo borom xam-xam àdduna bi mu ne kaay leen xool li ma def lii kenn musu koo def ku dul man kenn mënu ko bi gaa yi ñëwee di xool ndeysaan fekk ci mbooloo mi am na ab jullit waa ji xool xool xool ba caag ne ko ah lii de dara lii ci lii moom mu ne ah lu tax mu ne ko yow lii defaroo ko sax da ngaa yaakaar ne yaa ko defar mu ne ko maa ko defar mu ne ko non non defaroo ko mu ne foo jëlee matière première bi boo waxee tubaab bi ñu ne ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo defar oto fu ñu jëlee weñ lan la yàlla wax wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadid weñ kan moo ko wàcce bu yàlla wàccewul woon weñ kan mooy defar bato kuy defar avion yàlla moo wàcce weñ bi ñu jël defar ñu ne ñoom ñoo ko defar ah lan la doomu aadama defar fii ci kaw suuf te jëlewu ko fi lan la lépp loo defar rek fii ci kaw suuf nga ko jëlee fii nga ko fekk kon yàlla moo ko fi def beneen bi mooy da ngay dee bàyyi ko fi kon moom moo ko woon xoolal pyramide gu Égypte yi ñan ñoo ko defaroon pyramide yi nekk Égypte doomu aadama yi moo tax ñii nekk ci dund tey suñu jàppee ne tey ñoom ñoo avancé da ngay dégg ñu naan moyen âge da ngay dégg jàng histoire ñu naan la moyen âge ñu naan la ay asrul jahiliya ñu yaakaar ne léegi la adduna bi avancé déedéet maanaam chaque jour rek adduna nii lay demee gis nga am na ñuy ñëw ci kanam xam nga lu ñuy wax dañuy wax sunu maam sunu papa yi dañoo tardé wala ñun ñii ñu ne ñu dañoo tardé yow léegi looy wax sa papa yi dañoo tardé sama jamono papa yi dañoo tardé woon ndax sa jamono papa lu tax portable yi amuñu woon wala portable yi ñu amoon téléphone yooyu nii la tolloon ngand ba kuy wuyu nii ngay def sa ñaari loxo ngay téye di wuyu ndax ngand gi mu xoola ordinateur bi ñu njëkk a defar ci àdduna ay nit dañoo dugg ci biir ay nit ñoo dugg ci biir ordinateur bi ñu njëkk a defar ay nit ñoo dugg ci biir di manipuler touche yi naan nii di bës tey ordinateur bi ñuy defar sa loxo nga ko yor nii di manipuler sa loxo benn loxo naan nii tuuti wala nga dugal ko sa poos wala nga wékk ko fii sa mbagg da xool ak moom ordinateur bi ñu njëkk a defar laa wax ñi ko doon defar dañoo dugg ci biir di ko defar dañoo dugg ci biir toog di ko defar kon nan la toll allahu akbar léegi yow looy wax ñooñu tey ci jamono bi nga toll ñooñu xamuñu dara gis nga ñii ñëw suñu kanam dañ naan suñu papa yi ay kon lañu woon xamuñu dara xamu tax danañ defar léegi ay oto yi naaw ndax suñu papa yi ay oto ay sareet lañ doon dawal sareet xam nga yow nga sa papa da ngaa fekk muy dawal fas ak ay mbaam nga ni dof la nga bàyyi ko foofu nga ñëw defar ay 4-4 ay yu kenn xamul ñeneen ñi ñëw suñu kanam lu gën a garaaw lii la ñuy defar noonu mooy adduna chaque jour mais bu ñee jàppee ne ñii dañoo dof ñii ci loolu lañ tolloon ñun ci lii lañ toll moo tax ñu def lii ñun ci lii lañ tolloon ñeneen ñi ñëw tamit noonu la ba adduna bi xëy jeex day dem ci kanam maa nan sax min aaya aw nun siha naati bi xayri minha aw misliha alam taalam anna allah mu nga mbokk yi baatu alhamdulilahi rabil alamin ci gàttal loolu lay teg mooy borom bi tabaraka wa taala moom mooy yeyoo cant moo ko moom gu mat sëkk moom dong bokk ko kenn is huwa rabbu kulli shay'in wa xaaliquhu wa malikuhu kon lan moo ñu war wa anna alayna an nahmadahu wa nusni alayhi bi dalik kon li ñu war ci lii maadaama xam nañ ne yàlla tabaraka wa taala moom moom moom cant moom lañ war a bàkk moom lañ war a kañ mooy ñu delloo ko njukkal moom yàlla tabaraka wa taala ñu sant ko ñu tagg ko bàkk ko kañ ko gis nga dafa bokk ci sart yi yàlla dina ngoo ñaan mooy bala ngay ñaan yàlla nga sant ko loolu moo tax ñu ne la del wax del jàng fatiha ndax fatiha day sant yàlla tabaraka wa taala soo jàngee fatiha ba pare nga def salaatu anan la bi nga doog a def sa ñaan bépp ñaan boo bëgg yàlla may la njëkke ko sant yàlla tabaraka wa taala bàkk ko kañ ko màggal ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñaan sa ñaan su boobaa mën naa am yàlla tabaraka wa taala daal di nangu sa ñaan arrahmaani rahim waxoon nañ ko léegi firéem passé woon na te mooy tur bu màgg la moom rahmaan tur yàlla la tabaraka wa taala yar yar yërmande goo xam ne daf ko tasaare ci àdduna ak yërmande goo xam ne daf ko jagleel jullit ñi àllaaxira maaliki yow mi diin mooy buuru bis penc al malik saahibul mulk al mutasarrifu kayfa yasha mooy ki moom di def li ko neex ci limu moom borom alal bi nga fekk fi mu yor alalam di ko di ci def lu ko neex soo ko nee li ngay def lu tax nga koy def lu mu lay wax maa ko moom lu ma neex def ci borom kër gi rëdd këram yenn saa yi sax mu dajale jabar yeeg doom yi lan la leen di wax fii maa fi moom li ma bëgg directeur société bi moom société am lan lay wax employé yi fii lu ma neex moo fi am gis nga même réew mi waaye ñu naan man lañ fal ah man lañ fal lu ma neex laay doxal bu ngeen bëggee ngeen ñëw bokk bu ngeen bëggee ngeen toog waaw yàlla mi yàlla mi moom nag ñu ne moom du def lu ko neex moom tamit ah doomu aadama yi juum nañ yàlla nee na maaliki yawmi diin man yàlla maay buuru bis pénc yawmal qiyaam amul kenn kuñ fay dégg mu ne moom mooy buur ku dul yàlla tabaraka wa taala al malik mooy saahibul mulk mooy borom moomeel borom nguur al mutasharrifu kayfa yasa moo moo ci def lu ko neex lu ko neex mu def ndeysaan su la neexee nga jàng malik bu la neexee nga jàng malik warsh la ak ak xafs bu dee malik huwa sultaanul amri annaahi almuti almaaniu bila mumaaniin wala munaaziin bu dee malik malik moom mooy saahibul mulk al mutasharrif kayfa yasha bu dee malik mooy zu sultaan mooy borom nguur gi moom moom lépp annaahi mooy taj mooy xañ almuti mooy joxe almaaniu bila mumaaniin moom mooy xañ te képp ku ñu joxul moom yàlla tabaraka wa taala moo lay jox am ngeen benn asgar bu ñuy ñaan ginnaaw bu ñu jullee julli juróom ba pare gisuma ko fi mais ci la bokk mooy allahuma laa laa maania lima wala muti gis ngeen mu ngi ci sax yaakaar na mi ngi ci mi ngi ci kon yàlla tabaraka wa taala mooy joxe yàlla mooy xañe ku yàlla xañ kenn mënu koo jox ku yàlla jox kii mu ko xam léeg-léeg nga gis benn waay boo xam ne neexu la rek waaye mu am yàllaa ko jox yenn saa nga gis ko xam daf laa neex nga defal ko tout munoo fexe ba mu am wala gis leen loolu yàllaa joxe ah nga gis sa waay joo xam ne guddeeg bëccëg yaa ngi dang dangi ci ay mbiram pour mu tekki wala mu am dara waaye nga gis koo xam ne xamul dara xal la wala kasiran jàngul arab jàngul français jàngal alxuraan waaye moo fépp alal dañ ko daan signé sax mu naan nu ñuy signé bokk naa ak benn mus naa bokk ak benn borom alal boo xam ne mi ngi ma jëlee benn dëkk bu tudd Mbàkke di ma indi Dakar maa ngi ci ginnaaw oto bi ñu koy woo téléphone de téléphone bi coupé mu ne chauffeur bi jëlal portable bi composé ma numéro ki may woo bi ma demee ma wax ki ma boolee woon ak moom mais sa waay moom buur la patron la de mais téléphone sax day wax nañ ko composé mu ne ma non non xamul numéro yi jàngul te xool nu mu amee alal ba dañ koy dawalal oto mi ngi si kanam oto bi toog mu ne ma wa- ma ni ko non non mu ne ma wallahi xàmmewul numéro yi mënul lire te xool ni mu amee alal moo ki koy dawalal nga xam ne mi ngi dawal ci baax bi yor portable bi ku gën a xam ah waaye gis nga yàlla mooy def loolu yàlla mooy joxe soo amee pas-pas boobu da ngay noppalu dootoo gis ku am nga iñaane ko ah ndax da ngay xam ne yàlla mooy joxe yàlla mooy xañe allahu akbar dafa am il faut ñu delluwaat ci baat yi il faut ñu delluwaat ci baat yi ñu xam ne yàlla tabaraka wa taala mooy def lu ko neex du doomu aadama yi yàlla tabaraka wa taala mbir yi ci loxoom la nekk moo tax mu ne la maaliki yawmi diin yawmi diin ay yawmul jaza mooy bisu fay wa huwa yawmul qiyaama haysu yujzi llahu kullu nafsin bima kasabat nee na mooy bisu fay yawmal qiyaam mooy bis bi yàlla di fay jaam yi ci la yàlla di dajale jaam yi kenn par kenn di leen fay haysu jazaa'ul aadil nag fii tujza kullu nafsin bima kasabat ci la yàlla di faye doomu aadama yi lépp luñ def loolu moo tax ad dunya daaru amal la wal axira daaru sawaab adduna këru liggéey la alaaxira mooy kër gi yàlla di fayee moo tax kon suñu la indee adduna loo war a def mooy nga liggéey ndax fii ci adduna dañ laa indi pour nga liggéey alaaxira nag la la yàlla di fayee te mooy maaliki yawmi diin yowmal xiyaam yàlla dong moo fay fay amul keneen doo fa dégg keneen kuy fay ku dul yàlla da ngay dégg ñu ne la yowma yujaazi llahu an ibaadihi bis bi nga xam ne yàlla ci lay fay jaam yi seen jëf kon nag maadaama yàlla mooy fay te yàlla moom lépp loo def loolu la lay fay wa an laysa lil insaani illa ma saa kenn ku nekk la nga doon def loolu lañ lay fay kon kuy def defal te nag def gi foog mu am ndax man kaana yarju liqaa rabbihi fal yaamal amalan saali foog jëf ji am maadaama foog jëf ji am kon foog jëf ji ñu rafetal ko ñu teg ko ci alquran ak sunna ngir ëllëg bu ñu yàlla tabaraka wa taala di fay du ñu réccu ndax ku nekk li nga def loolu lañ lay fay mbokk yi maaliki yawmi diin maanaam lu muy tekki maanaa aaya bi mooy day màggal yàlla tabaraka wa taala bi annahu al malik li kulli shay yàlla moo moom lépp yowmal qiyaam moom dong moo fay moom la moo fay fay lu tax haysu la tamliku nafsun li nafsin shay'an yowmal qiyaam amul benn bakkan bu fa am dara wala nga mënal fa sa beneen moroom dara ay aaya yi ci alxuraan bëri na yowma la tamliku nafsun li nafsin sa- shay'an ci suratul baqara aaya baa ngi fa lu bare bare bari hmm? fan la fa yàlla di wax ne bakkan mënalul moroomam dara bakkan mënalul moroomam dara est-ce que aaya boobu ñun waa Sénégal gëm nañ ko aaya boobu naan yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma izin lillah bakkan mënalul moroomam dara ah kenn mënalul kenn dara benn taalibe mus na ko jàng ci suufu fenêtre ñu toog ni di waxtaan mu daal di wax aaya bi rek borom fenêtre bi duur fenêtre bi mu dajjee ko mu ne leen bu ma leen fekkee foofu rek parce que bëggul ko wax aaya boobu moom gëmul loolu fii mu nekk nii ñun dañoo gëm ne yowmal xiyaam am nañ fa ñoo xam ne dañ faa toog suñ ñëwee rek ñu ne yàlla ñoom diw ñëw nañ bismillah ana ana caabi ji ñu ne mu ngi nii rek ñu daal di ubbi rek ñoo ñu daal di dugg waaw. dégg nga dégg nga kooku ni mu ko firee su firee alxuraan ba yegg ci aaya bi danaan yàlla dafa wax ne eh, jullit moo dul mënal yéeféer dara amma jullit moom mën na mënal moroomam dara yàlla mu ne yawma la tamliku nafsun li nafsin shay baatu shay li muy teg chey ndeysaan yaay Aïcha laaj na yonent bi na yonent bi ndax ëllëg di ngeen fàttaliku seen njaboot yonent bi ne ko ya Aïcha ñetti place kenn du fa fàttaliku kenn ñetti place loo bëgg-bëgg nit doo ko fàttaliku mu ne kañ la mu ne bis bu ñu génnee ci bàmmeel yi ah war a dem ci kanam yàlla mu ne kenn du fàttaliku kenn mu ne bis bu ñuy jël jëf yi jëf yi ku nekk ñuy joxe jëf yi xamagoo sa loxo ndey joor xamagoo sa loxo càmmoon ngay jël mu ne doo faale kenn mu ne ak kañ mu ne bu ñuy jéggi siraat kenn du xalaat kenn te ñooñu ñooñu yaakaar naa ne bu fekkee ñooñu ñoorul xalaat allahu akbar na leen yàlla jubal kon yàlla tabaraka wa taala maana aaya bi lu muy tekki mooy maalik mu yowmi diin mooy yowmal qiyaam kenn munu fa dara wal mulku alladi laa malika yowmal qiyaama siwa mooy buur bi nga xam ne kenn du fa buur ku dul moom wal mulku alladi laa malika yowmal qiyaama siwa mooy buur bi nga xam ne kenn du fa buur ku dul moom loolu la malika yowmi diin di teg mu ne fii haadi aaya ci aaya yi ñu doon jàng am na ñetti mbir yoo xam ne war nañ ko cee jële bu njëkk mooy anna allaha taala yuhibbu alhamd yàlla bëgg nañu sant ko fa li haada loola tax hamida taala nafsahu yàlla tabaraka wa taala daal di sant boppam wa amara ibadahu bi yàlla daal di sant jaam yi nañ ma sant waaw dafa tagg boppam mu ne jaam yi nañ ma tagg nañ ma sant ñetteel moom tagg tagg gi nga xam ne moom la ñu war a tagg yàlla tabaraka wa taala dafa war a nekk ci ay melokaanam yi mu tagg boppam waruñu koo jël di ko tagg ci yeneen tur yi nga xam ne yàlla tabaraka wa taala sosalul boppam tur yooyu léeg-léeg nga jaar ci ay kër wala ay mbedd wala ay oto nga gis ñu bind ay tur yoo xam ne boo laajtee dañ naan la lii turu yàlla la fekk du turu yàlla dañ saa nga gis ñu bind fatiilan ñu ne lan lañ lay wax ñu ne wala ñu bind jadiilan ci ay oto di nga ko gis loolu du turu yàlla tabaraka wa taala yàlla moom ay turam wax na ko walillahi asmaul husna fad'u loolu si la.
faduuhu faduuhu biha yàlla am na ay tur yu rafet mu ne na ngeen ko ci woo ah yàlla ay tur yu rafet laa mu ne nañ ko ci woo te tur yooyu wax nañu ko yonent bi saa salaam wax na tur yëpp téeméer la bu manqué benn soo koy ñaan ci tur yooyu ngay jaar boo ci jël baax na kon incha allah mbokk yi fii la ñuy yem noonu ba samedi bi di ñëw ñu daal di eggali fatiha bi tàmbale ko ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ñu ñaan bur yàlla tabaraka wa taala mu def ci ñun dégg ak topp yal nañ yàlla jëriñ ci lépp loo nga xam ne xam nañ ko lépp lu ñu juum yal nañ yàlla tabaraka wa taala jéggal asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yàlla fayal ñu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أه، كروك نيونغي يمون إياك نعبد وإياك نستعين فوف لا نيو تامبالي تاي فوف لا نيو يمون إياك نعبد وإياك نستعين benn aaya la ci aaya alquraan yi li muy tekki mooy iyaaka yow dong yow yàlla amul keneen yow kese naabudu la ñuy jaamu la ñuy wéetal yow yàlla tabaraka wa taala saa yoo jàngee iyaaka nag damiru nasb la kenn lañ koy woowee kenn kenn sooy wax ak kenn moom ngay wax li muy tekki mooy ki ngay waxal moom kese moom moom moom loolu nga bëgg a wax moo tax mu ne ko iyaaka yow dong yow yàlla naabudu la ñuy jaamu maamaana al ibada lan mooy jaamu borom xam-xam ba ba muy firi baatu jaamu yàlla dane tur la boo xam ne dafa ëmb làq lépp lu yàlla bëgg mu gërëm ko ci wax ak jëf yu feeñ ak yu nëbb
lépp looy def ci wax ak jëf muy lu yàlla bëgg loolu mooy jaamu yàlla soo jàngee usulu salaasa daf lay wax ne baatu ibaada yi li muy tekki mooy wéetal yàlla wa maanaa yabuduni yuwaxiduuni maanaa jaamu yàlla mooy na nga ko wéetal na nga kennal yàlla tabaraka wa taala mooy yàlla dong la ñu war a jaamu jaamu yàlla moo ko moom amul keneen keneen bokk ci yàlla dong la ñuy jaamu waaye wa iyaaka yow yàlla dong amul keneen nastainu la ñuy sàkku ndimbal nabudu ay nutiicu maa gaayati zilli wa taazimi wal xubbi dañuy jaamu yàlla yow yàlla yow la ñuy topp ànd ak torox toroxlu jaamu yàlla gi boo koy def da ngay toroxlu moo tax nga nangoo sujjóot nga nangoo rukkoo xam nga mag moo xam ne mi ngi sikki moom daal di sujjóot jëmam ci suuf teg ñaari loxoom ci suuf teg ñaari bëtu ëmam teg ñaari bëtu ënu tànkama boppam daal di sëgg ginnaawam daal di jóg mu sujjóot loolu soo ko defoon ci sa kanamu morom ñu ne yow vraiment ni ngay toroxloo ci nit yow ni ngay ah yow lii lii dara jaru ko ci àdduna soo ko defoon ci nit lañ lay yedd amma boo ko defee ci yàlla nag da ngay am tiyaaba ndax toroxlu nga ci kanamu borom bi xam nga ne yàlla mooy sa borom nga toroxlu ci moom te loolu bi nga koy def yaa ngi ci ànd ak màggal ko moom yàlla soo xamoon ne soo yuuxoo sax wala nga jooy wala nga def yaramu neen mu nangu ko nga def ko waaye yemul ci ak yaa ngi koy def ngir màggal yàlla waaye bi nga koy def yaa ngi ànd ak mbëggeel yaa ngi ànd ak cofeel loolu mooy ibaada mooy maanaan naabudu da ngay toroxlu ci yàlla bi ngay toroxlu yaa ngi ànd ak mbëggeel yaa ngi ànd ak màggal ko moom yàlla tabaraka wa taala léeg-léeg sax nga gis ci du koo xam ne du ci yem mais day ànd ak jooy ba ñendax itam yi di génn léeg-léeg ñu won la image yi màkk gars yi di ñaan nga gis ku naan di yuux di toroxlu loolu mooy ibaada jaamu yàlla mu ne nastain natlubu al awna dañuy sàkku ndimbal natlubu awnaka lana ala taatik dañuy sàkku sa ndimbal yow yàlla tabaraka wa taala ci topp giñ lay topp ci la ñuy sàkku sa ndimbal benn waaye day fi suy firi iyaaka naabudu wa iyaaka nastain day wax ne doomu aadama soo ko waxee iyaaka naabudu mu ne la wa iyaaka nastain maa ñoo boo ñëwoon tey ci kenn nga ne ko comme gars yi suñu ne loolu ñu naan jébbulu soo ñëwoon ci benn waaye nga ne ko jébbal naa la sama bopp mu ne la waaw soo ne ko jébbal naa la sama bopp aduna ak alaxira lu mu lay wax moom kon fii moom bu fi dara manqué loo am indil loo am indil loolu mooy soo ko ne iyyaka na'budu mu ne la wa iyyaka nasta'in nit soo ko ne iyyaka na'budu mu ne la wa iyyaka nasta'in jox naa la sa bopp mu ne la kon loo am indil wala yàlla nag iyaaka na abdu wa iyaaka nastain moom ngay jaamu ci moom ngay sukkandikoo ndimbal ci moom ngay sàkku ndimbal yonte ba muy jàngal xadis sahaaba xadis bi lu mu ko wax isa saalta fasalillah wa isa wa isa staanta fastain billah yëmul ci loolu de mu ne ko xamal umma bi yëpp bu ñu àndoon bëgg laa dimbali ci benn mbir boo xam ne yàlla dimbaliwu la doo ko am su umma bi yëpp bëggoon laa xañ loo xam ne yàlla moo la ko jox kenn mënul fexe ba doo ko jot ba pare pour sahaaba bi am am confiance mu ne ko xalima gi doon yàlla doon bindee yëkkati na xalima gi kayit gi fendi na kon mbir yi jeex na lan moo fi des kon booy sàkku ndimbal sàkku ndimbal ci yàlla keroog yéen a ngi doon nettali lu grave mooy waa ji nga xam ne dafa gént ñu ne ko demal nga jox diw du loolu waa ji ñëw indi lépp ba pare lu xew mu ne ko laaj mu ne ko boo amee soxla beneen yoonee rek ñëwal nga wax ma mu ne ko lu tax ma lay wax sama soxla waa ji la yee ci say nelaw ne la demal nga defal waa ji nangam kooku laa koy wax sama problème xoolal tawxiid bi nu mu grawee tawxiid bu graw xoolal waa ji nelaw gént ñu ne ko demal nga fajal diw soxlaam mu bàyyi ay nelawam yóbbu otoom def ci lépp dem fajal waa ji aajoom ba pare bu ko jox ay numéro téléphone ne ko saa yoo amatee problème woo ma mu ne ko du ma la woo ki la yiyee ne la demal nga fajal diw soxlaam kooku laa koy waxaat donc affaire bi dafa garaaw moo tax gis nga ñëpp a ngi rawante ci yaxiin ak kóolute fa la nit ñi rawante iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in benn mbokk boo xam ne dafa takk ay béjjén béjjén bi mu takk rey na sept personnes parce que réseau bi réseau béjjén bi ci néeg bi la ko def dafa yor bu ndaw ci loxo bi su génnee ci dëkk bi ku mu xulóor rek da la koy joxoñ yow man ngay fontoo soo demee rek noonu ngay nekk rek ba dee caddi caddi wala crise dee moom loolu la bi réseau bi nag mu ngi néegam mu dajeeg benn borom xam-xam bu mag borom xam di waxtaan ak moom ne ko yow sa béjjén bi mu naan ko waa da nga xamul béjjén bi rek kooku ne ko lii munoo ko yor nekk julit ndax yow yaa ngi taxaw ci kanam yàlla naan ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba pare bëgg a yor lii chaque jour nga naan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in suba tisbaar takkusaan timis gee ak yow lii boo tàqali koog moom doo jullit mu dem ñibbi këram mu tëdd mun ta toog fu mu toog rek aaya yi ñëw naan ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aaya bi mooy ñëw li ko waa ji waxoon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iya mu tëdd guddi gént aaya yi ñëw iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu jóg toog kii aaye bi sonal na ma trop mu jóg wëri waa ji fajar gi gis ko ne ko yow sa iyaaka na abudu iyaaka na sain bi nga ma waxoon dafa am loo ci def wax ma ko wala mu ne ko lan laa la wax man dama la xamal ne loo mooy diine mu ne mooy munumaa nelaw ndax iyaaka na abudu iyaaka mooy ñëw ni nga ma ko waxee woon day ñëw rek ci sama bopp bi nit mun ta rek iyaaka na abudu iyaaka na sain wala ku ne iyaaka na abudu ba pare am na lu nekk fii am na lu nekk fii am na lu nekk fii am na lu nekk ci tànk yi wala am na lu muy ragal wala am na lu muy tiit te mu ngi wax yàlla iyyaka na'budu est-ce que loolu wér na kon moo tax baat yi yenn saa yi dañ koy wax nii rek fekk lu garaaw la te baat yi li ma doon wax léegi léegi waxtaan bi ma jógee mbir yi mënuñu ko dund mu neex li yàlla doon wax ne inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar julli day tere nit def lu bon ñun ñuy julli Sénégal 24 heures sur 24 mbon gi di gën a yokk est-ce que julli nañ ko yàlla moo ne inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar julli day tere nit def lu bon ñun ñuy julli lu bon gën a bëri ci dëkk bi chaque jour doone suñ la laajoon tey lu bon ak lu baax lu lu lu luy yokk looy wax lu bon ak lu baax lan mooy yokk looy wax lu bon mooy yokk mais lu bon day gën a deltu ginnaaw te ñun ñu ngi julli guddi bëccëg kon est-ce que iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bi dëggu na nit ñi jaamuñu yàlla sukkandikuwuñ ci yàlla ñaanuñu yàlla ndimbal ku soxla ku la dimbali tey même bu doon problème bu ndaw li ngay njëkk a def mooy dem ci nit nangam nangam wala nga julli ñaar raak daal di dénk yàlla say loxo benn cheikh day wax ne benn waaye da doon tukki dénk da doon aji màkk mu dénk waa këram yàlla waa kër gi ne ko yow papa koo ñu bàyyee mu ne yàlla mu dem yoonam yàlla laa leen bàyyee mu dem bi mu demee kër gi ay fan rek li mu denc li ñu dencoon ci kër gi pour lekk affaire bi jeex ñëpp jaaxle gars yi saalit ku nekk naan fu ñuy jëlee lu ñu lekk paa bi li ñu def nangam ak nangam benn xale bu jigéen wala benn xale bu ndaw benn xale bu góor ne leen yéen sama papa am na lu mu xon neen daf ñoo dénkoon yàlla nañ leen dem ci yàlla ñu daal di jàpp julli ñaari raak ñu ñaan yàlla benn buur doon tukki ñëw ba ci boor yooyu daal di mar naan ne may leen ma ma naan dama soxla ndox mu sedd gars yi daw dugg ci kër gi gën a jege ndeke kër góor gi la ñu ne buur bi moo nekk fii dafa mar naan nee na ngeen may ko ñu jël benn kopp foofu amuñu woon sax ay bagage yu yu kii mais ñu jël benn kopp raxas ko raxas raxas raxas ba mu set dem utal ndox mi buur bu buur bi jox ko ndox mu sedd mu naan buur bi naan ba pare ne wax yéen yéen kii ndox mi neex na fan ngeen ma mayee lii fan ngeen ma raxasalee kopp bi kopp bi fu ko jëlee ñu ne ko kër diw ñu ne anamu mu ne ah nekk fa de daa dem màkk rek buur bi ne ah ku dem màkk de bàyyiwoo sa kër dara daal di jël ngandu mbuus xaalis bu mu fees daan ne yéen ñi ma àndal ku nekk na génne teg ci ñu jox waa kër gi daanaka ba gaa yi génnee kër ga daa fees ak xaalis ana kum leen bàyyi la est-ce que ñëw na wala ñëw moo tax ñun sunu imaan yi moo doy waar rek wallahi sunu imaan yi doy waar bu ñu amoon yàlla ngëm-ngëm bu dëgg sahaaba yi ñu tuuti woon lañ ci àdduna mais xoolal liñ tas ñun ñaata lañ parce que fii fii moo normalagul fii iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yi ñoo ñëwagul su dëgg woon kon duñ demee nii kon sunu mbir du demee nii nu mu demee tey xoolal jullit bi jàkkaaroog yàlla ne ko yow dong laa jaamu les est-ce que loolu du lu ndaw de yàlla yow kese kese keneen bokk ci laay jaamu mais xoolal bi mu waxee loolu ba pare da ngay gis ndeysaan mu dugg ci leneen di joxe ay nen saxe joxe fi ay sondel ay juróom-ñaari lañ set juróom-ñaari yor naa sama kër téere boo xam ne buñ ko lalee fii léegi bu fees jàkka ci gis nga téere bi wan naa leen ko téere bi bu ñu ko lalee léegi mu fees mokke ngandement bi bés bu ma juddoo ba léegi mosuma gis téere boobu téere bi mun nañ ko lal juróomi ni toog ci mu ëpp si jaada te téere la de xoolal ñu bindal ko nit ne ko tëdd ci wala nga njaganaayoo ko sa sa mbir dina baax ana yàlla ana iyaaka na abudu yàlla yow dong iyaaka yow kese naabudu la ñuy jaamu wa iyaaka yow dong amul keneen nastainu la ñuy sàkku ndimbal lu mu metti metti yow la ñuy sàkku ndimbal duñ dem ci keneen moo tax yonte bu mu jàngal sa sahaaba bi da ko ne booy laaj laajal yàlla booy sàkku ndimbal sàkkul ndimbal lu tax waxu ko ñëwul ci man ah lu tax waxu ko booy laaj laaj ma booy sàkku ndimbal ñëwal ci man man maay yonent bi lu tax yonent bi wax ko loolu xoola fii gars yi bu ñu lay bu ñu lay kii dañ naan la problème boo am ñëwal ci man wala du loolu lañ lay wax sa papa sax dana problème boo am ñëwal ci man au lieu nga yar xale bi nga ne ko problème boo am laajal yàlla bul ñëw ci man dana naan ko ah eh waaw loo soxla ñëwal ci man loolu moo tax du am tawxiid benn tubaab mu ne liir yi mu ne suñ doom yi lu tax duñ yaru mu ne liir buy jooy xam nga liir mënul wax bu soxlaa dara day jooy bu jooyee nga nàmpal ko suba bu soxlawaatee ween bi nu muy def day jooy su sonnee tëdd bi lu muy def day jooy mu ne bu jooyee nga bàyyi ko mu tëdd bu jooyee ba sonn bu noppee day xam ne jooy du faj dara suba du jooy est-ce que xam ngeen wax bi mais xam nga ñun mënuñu riposter loolu mënuñu ko muñ bu xale bi ne eh eh eh nga ni eh kenn ya gëj xataraay wëri yaayam mais boo ko bàyyi woon tuuti mu eew eew eew ñaari minute ñett day metti nag mais léegi mu noppi day xam ne jooy du faj dara lu jooy di faj jooy mës ngeen gis ku jooy ba sa aajo faj jooy du faj dara yàlla rek tabaraka wa taala iyyaka na'budu yàlla yow dong la ñuy jaamu wa iyyaka nasta'in yàlla yow dong la ñuy sàkku ndimbal natlubu awnak yàlla sa ndimbal la ñu soxla topp gi ñu lay topp ñu ngi ci ñu ngi ci soxla nga ñuy dimbali yow yàlla tabaraka wa taala gis ngeen aaya bi allamana allahu taala kayfa natawassalu ilayhi fi qubuli du'aina borom bi tabaraka wa taala mu ngi ñuy jàngal naka la ñuy jokko ci moom jokk tawassul mooy jokk ci yàlla jokk au lieu am kuy nekk sa digganteeg yàlla fekk yaa ngi def ay nit sa digganteeg yàlla yaa ngi def ay mbir sa digganteeg yàlla yaa ngi def ay lu mu mun a doon doom yeeg jabar yeeg xarit yeeg am di jàmm yeeg yi ngay ragal ak yaa ngi koy def sa digganteeg yàlla rek ja demaguloo parce que ba léegi yeggoo yeggoo te yow da ngaa war a yegg nag xoolal sahabatul kiram xoolal yonent yi keroog Moussa bi mu dàqee Firawna ba mu dàqee Moussa ba mu sës ko ci géej gi banu Israël ne inna la mudrakuun tey ñu dee tey ñu dee lan la leen Moussa wax kalla inna ma'i rabbi dafa am yaqin déedéet yàllaa ngi ànd ak man banu Israël a ngi nii géej gaa ngi nii Firawna yegsi na mais xoolal moom mu ngi am kóolute mi ngi ànd ak yàlla est-ce que loolu Moussa kese la ah xoolal saxaaba yi xoolal yonent yàlla Muhammad lan la waxoon Abu Bakar saanis na ni is huma fil gaar is yaqul li saahibihi la tahzan inna allaha maana yonent bi sahaaba yi loolu la ñu waxoon keroog ba gaa yi ne waxee tey ngeen dee inna annaasa qad jama'u lakum faxsahum fa zaadatum imanan wa qaalu xasbuna allah wa ni'mal wakil gis nga xasbuna allah gis nga affaire bu doy waar la du lu ndaw de lii rek moo ñu tardeel nag bu fekkoon ne am na rek kon ñun ñëpp dañuy jokk ci yàlla direct tabaraka wa taala tey jullit yi boo leen ne boo ne benn jullit boo ko ne tey nga dee li muy njëkk a xalaat mooy fu may wallu au lieu boo ko ne tey nga dee mu ne la hasbunallah wa ni'mal wakil xelam dem ci moom yàlla direct déedéet boo ko ne tey nga dee li muy njëkk a xalaat mooy diw mun na maa sauvé wala ndàngam wala kee wala lële ba mu sonn nag léeg-léeg mu nga gis ku feebar ñu wër hôpitaux yi ba mu jeex ñu ñu ne yàllaa ci des nekk di yàlla moo ci des dem nañ fu ne yàlla rek a ci des léegi kan moo ci njëkkoon ah yàlla ci des kon ku ci njëkkoon léegi nag dañ koy fàtte nit ñi dañuy fàtte yàlla de loolu lu am la dañuy fàtte borom bi da ngay gis ku feebar ñu daw daw dugg ci hôpitaux yi duñu mën ñun dugg ci àll bi dugg ci àll bi ba borom garab yëpp yeex ñu ñëw tëral waaw léegi nag kii lu ngeen ci xalaat ñu ne yàllaa ci des kii moom yàlla rek a ci des léegi nag ndeysaan xoolal fekk nit ki bi mu feebaree balaa kenn lan la lan la Ibrahima waxoon wa iza maritu wees fii nii yàlla rek la amul keneen c'est que nag day gars yi dañuy mujjale yàlla loolu moo tax mbir yi grave te yàlla daf ñu jàngal ci aaya bi kayfa natawassalu ilayhi naka la ñuy jokkoo ci moom fii duaa inaa ci suñuy ñaan ad duaa huwa al ibada ñaan mooy jaamu yàlla jàng nañ ko ci hadis ad duaa silahul mu'min ñaan mooy ngànnaayu jullit jàng nañ ad duaa muxul ibada ñu ngi jam hadis bi ah Tirmisi moo ko solo mais dañ ko dayifa ñu ne ñaan mooy yuqu jaamu yàlla yonent bi ne ñaan mooy jaamu yàlla ñaan am na ñoo xam duñ ñaan te yàlla wax na ci alxuraan ne bu ngeen ma dul woon ñaan du ma leen faale maa yaaba ubikum rabbi lawla duaaukum alxuraan wax na ne inna allazina yastakbiruna an ibadatihi sayadxuluna jahannama daaxirin xoolal julli dem ba du ñaan yàlla am na yoo xam ne duñ ñaan yàlla rus nañu ñëw julli ñaar raaka sujjóot ne yàlla damaa bëgg nangam wala ñu sëlmal ci julli ne yàlla damaa bëgg nangam rus nañ ko am ñoo dul ñaan ñaan bokk seen programme est-ce que xam nga tax soxlawuñ ñu ko ñu ngi am dépasse wér nañ dara jotu leen am nañ kër guñ dëkk ñu ngi fay courant ñu ngi fay ndox kon lu lu may ñaan lan laay ñaan ndeysaan ah kon ku am dara rek kon ku am dama dëkk ak benn xale ma jékki-jékki rek une semaine ma koy gis jàkk saa yu ne asalaamaaleykum ma gis ko mu toog ma waaru quoi jaaxle wu ma ci lu tax muy julli de parce que dafa war a julli mais damaa jaaxle lan moo ko indi jàkk semaine bi jeex ma dégg dem na Italie ma ni nii la kii dafa am lu mu bëggoon kii daa am lu mu doon lu mu doon sellal day rigaa yi bi soxlaa dara ñu ne damay sellal temps yi parce que xaaral waaw loolu léegi lu muy nuru affaire boobu lu muy nuru léegi dafa am loo bëgg nga ñëw jéem a jege yàlla am nga ko nga daw loolu la ñuy def ah moo tax gis ni jàkka joo dem ci Sénégal wala jàkka ju yàlla mooy nga ci doo fa fekk borom alal yi doo fekk député yi doo fa fekk ministres yi sénateurs yi ba ci ba ci ba ci xalif général yi doo leen fekk jàkk yi duñ julli ci jàkk ñan ngay fekk jàkk yi mooy miskin yi rek ñoom doon ngay fekk ci jàkk yi borom alal yi taluñ dem jàkk si te yi ñuy dëkk sax jàkk du fa am boo fa bëggee indi jàkk sax ñu ne la non yow doog ñu bëgg a yee jamais jamais jamais kon yàlla jàngal nañu naka la ñuy defee tawassul ci suñuy ñaan fa qaala mu ne ahmidullaha sant leen yàlla wa asnu alayhi na ngeen sant yàlla tagg ko kañ ko bàkk ko ah wa majjiduuhu na ngeen ko teddal na ngeen moy ci moom moom yàlla tabaraka wa taala bi an taabuduuhu wahdahu wala tushriku bihi shay'an na ngeen ko jaamu moom dong bu leen ko bokkaale ak leen mbokk yi jullit buy ñaan yàlla doo ñëw rek ne allahumma islam daf laa jàngal ne booy ñaan yàlla tagg ko ci ay turam yu rafet yàlla ne walillahi asmaul husna fad'u biha na ngeen ko ci woo jàngal fatiha wala jàngal duwaawul istiftah subhanaka allahumma bihamdik taggal yàlla bàkk ko kañ ko après nga ñaan ah waaye ya yemul ci loolu sant leen yàlla bàkk leen ko kañ leen ko taqoo leen ak moom ngeen jaamu ko moom dong bañ koo bokkaale wa tastainuhu na ngeen sukkandiku ci moom yonente bi saa salaam sax bokk na ci duwaawul xaaja bi mu doon def mooy xutbatul xaaja su daan xutba lan lay wax inna alhamdalillah nahmaduhu wa nastainuhu gis nga de ñoo ngi koy sant ñoo ngi sukkandiku ci moom di sàkku ci moom ndimbal gis nga yonente bi xutbaam yépp da ngay fii da nga ci fekk lool surtout xutba boobu ñuy wax xutbatul xaaja ah da nga ko ciy fekk baat boobu mi ngi ci yàlla dañuy sukkandiku ci moom ah di sàkku ci moom ndimbal moom yàlla tabaraka wa taala waaye wala nastainu bi gayrihi waru ñoo sukkandiku wala ñuy ñaan ndimbal keneen ku dul yàlla moo tax baatu iyaaka naabudu wa iyaaka nastain alxuraan bi daa jër révisé tey dafa jër révisé de baat yi dañ koy wax ñu ngi koy jàng ñu ngi koy tëjuit ñu ngi jooy mais baa di demul wax naa ko sànq parce que affaire bi amul lu muy saf loolu olof yi naan lu mu saf te ko màcc moo ko xam ah doy na waar de léeg-léeg nga dem ci yenn place da ngay gis gaa yoo xam ne li ñuy jàng day def taasir ci ñoom mais ñun jàng bi dootul def dootul def julli gi amul taasir jàng yi amul taasir ibaada bi amul taasir dara du jeexintal lu tax du jeexintal parce que affaire yi eggul ci biir xol yi te dafa war a egg ci xol bi dafa war a egg bu ci biir toog am fa place mais bu fekkee yëf yi ci ci jë yaram bi rek la yem nii ni ni ci kaw kon li muy tekki mooy du baax suñu jàllee baat boobu wala lu ñuy jëlee ci aaya yi bu njëkk bi mooy aadaabu duwaa tegginu ñaan haysu yuqaddimu saail bayna yadayhi duaaihi hamdulillahi hamdan lillahi wa sana alayhi wa tamjidihi li ñuy jëlee ci aaya bu njëkk mooy kii tegginu ñaan ñaan dafa am teggin mbokk yi même autorité yi ñu nekkal wala kilifa yi ñu nekkal wala mag ñi wala sunu waajur yi ñu nekkal tey kan mooy ñëw rek taxaw ci papam daan ne nii weggal na ko bon pam 1000 francs laa bëgg ah kuy def noonu fii ci ñun ah même xale bu ndaw bi tey bu bëggoon ñaan papam wala yaayam nu muy def day ñëw di ko ñuuxu di tëdd ci kawam ba caag ma ne papa ma juróom gis nga di yërëm tëlu gis nga wala wala day ñëw yuuxu ko nangam ba papa ji xaw a kii tuuti ne yow lan la xanaa dafa am loo bëgg mu ne waaw mu ne mu ne mu doo koo may est ce que bu ñëwoon rek nga ne pa jox ma foofu 25 ma jënd gerte am papa ji ne waaye kii li muy def nii léegi nag yàlla nag léegi ñëw rek taxaw rek ne yàlla may ma kër wala may ma oto loolu yomb na di il faut nga ñëw toroxlu dafa am teggin teggin adabu du'a ah nee na kii ñaan day day jiital ci kanamu yàlla tabaraka wa taala sant ko bàkk ko kañ ko màggal ko dina ci yokk julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo waxee alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din gis nga balaa ngay wax ihdina siratal mustaqim gis nga fi nga tàmbaleeg yàlla wax nga alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim yooyu yëpp yaa ngi tagg yàlla ah nga tagg ko après nga sant ko nga doog a julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam summa yasal xaajatahu après mu doog a laaj ñaanam mu doog a ñaan ñaanam fa innahu yustajaabu lahu dañ koy nangul mais nga ñëw rek ne yàlla aw ma paasu Dakar may ma yomb na trop yàlla ma ne dama am benn problème maa ngi nii def examen ana ana li nga li wax na est-ce que def nga teggin yi dafa am teggin Ibrahim bun Adham jàngale na fukki mbir yoo xam ne nit ñi buñ koy def buñ ñaanee yàlla yàlla du leen may ñaareel bu ñuy jëlee ci aaya bi ñu wax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mooy allah yu'badu ghayru rabbihi nit bu mu jaamu lu dul boroomam mbokk yi loolu dafa war a leer nit warul jaamu lu dul boroomam wa la yasta'inu illa huwa subhanahu wa ta'ala waroo sukkandiku ci kudul yàlla waroo ñaan ndimbal kudul yàlla waroo jaamu kudul yàlla li la ñuy jëlee ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in su fekkee ihdina siratal mustaqim la mu ne ihdina yal na ngi jubal asiraata yoon al mustaqim bu ne coow jub kocc yàlla yal na ngi jubal ci yoon bu jub bi ihdina ay arshidna wa adimna hidayatana yow yàlla yal na ñu orienté yal na ñu jubal yal na ñu saxal ci yoon bu jub bi ban yoon la mu ne asiraat al tariq al mawsulu ila ridaak yàlla yoon woo xam ne daf ñuy wommat indi ñu ba ci sa kontaante sa ngërëmte yow yàlla tabaraka wa taala loolu mooy ab asiraat mooy ab tariq yoon ah ban yoon al mawsul yoon woo xam ne daf lay yeggal ilaa ridaaka ci sa ngërëm yow yàlla ci sa kontaante wa jannatika ak sa aljanna wa huwa al islaam te mooy islaam waaw li neex na de nga ñaan yàlla yàlla jubal la saxal la orienté la ci yoon woo xam ne boo ci jaaree egg ci moom yàlla waaye egg ci kontanteem waaye dugg aljanna loolu mooy ihdina siratal mustaqim léegi nag xoolal jullit bi di wax lii ñaata yoon nga koy wax julli suba suba rek bu ñu wax naafila yi nañ wax suba rek di nga ko wax ci ñaari ràkk fajar wax ko ci ñaari farata yi muy ñaata yoon nga wax ko ci julli tisbaar nañ jël farata bi rek bul jël naafila bi sax nga ñëw gee tàkkusaan nga ñëw timis nga ñëw gee soo ci boolee rakk naafile yi ñaata yoon ngay wax ihdina siraatal mustaqim fanzur nit ñi naan ihdina siraatal mustaqim nga gis waa ji wax ihdina siraatal mustaqim ba pare génn taxaw ci kesku PMU yi di ñaan programme ana ana siraatal mustaqim bu ma waxoon yàlla na ma ko ci teg génn taxaw ak jigéen joo xam ne waroo wax ak moom génn génn génn génn yàlla ñu yàlla jubal kon yow yàlla ihdina yàlla nag ñu jubal yàlla nag ñu saxal yàlla nag ñu baaxal ci yoon woo xam ne buñ ci jaaree dinañ egg ci sa kontaante sa ngërëm yow yàlla te jullit ndeysaan jullit lu mu war a def ci kaw suuf yëpp mooy mu ut ngërëmal yàlla Moussa keroog ba mu bàyyee waa banu Israël daal di fex dem ci yàlla bi biñ ko laajee lu mu wax wa ajaltu ilayka tarda yow yàlla man de ñëw naa pour nga kontaan rek bàyyi naa fa ñi ma doon àndal de pour yàlla nga kontaan ci man rek loolu moo tax ma bàyyi ñi ma doon àndal ma ñëw loolu rek kontaan ah te kontaan yàlla tabaraka wa taala ñëpp ci war saabiqu ila magfirati min njëkkante leen njëkkante fa firru ila allah daw leen dem ci yàlla il faut il faut ñu def loolu yow yàlla yàlla ngi teg ci yoon woo xam ne buñ ci jaaree dinañ ñëw ci sa kontaante waaye dinañ dugg sa aljanna te mooy islaam صراط المستقيم المستقيم الذي لا ميل فيه عن الحق ولا زيغ عن الهدى yow yàlla ñoo ngi lay ñaan nga jubal ñu ci yoon woo xam ne amul jéng ku ci jaar ci dëggu ngay tegu amul jàdd ku ci jaar da ngay baax loolu mooy almustaqim mooy yoon woo xam ne laa mayla fii amul jéng wala zayg amul jàdd anil xaq anil huda ci njub doo jéng ci dëgg dëgg gaa ngi ni da nga koy wax da nga koy jëfe waaye njub gaa ngi ni da nga ciy tegu yàlla nee na nit ñi man maa leen indil dëgg walakin aksarahum lil xaqi kaarihun man maa leen indil dëgg mais ñi ëpp ci nit ñi bëgguñu dëgg olof yi nee nañ dëgg bu réeree ci pénc ñu koy wër suba ba ngoon gisuñu ko kilifa moo juum waaw dëgg bu réeree ci dëkk bi ñu koy wër suba ba ngoon gisuñu ko am na borom doole bu fa jàdd moo tax kenn du ñemee wax dëgg ñi da ngay dégg nit ñi ñu ne ah diw di moom daa ñeme dëgg léegi ñeneen ñi nag lu ñu war a ñeme fen est-ce que loolu jaadu na ah diw de moom yow de yéen de wax dëgg yàlla ñu baax ngeen yéen yéen a ngi ci yoon bi léegi yow nag yéen yéen a ngi ci yoon bi léegi ñun nag ñun fu ñu nekk Sénégal loolu ngay dégg ñu ne yéen ñu baax ngeen ci dëgg ngeen nekk waaye léegi yéen bu ngeen nekk ci dëgg ñun ñii li di wax yéen a nekk ci dëgg ñun fan lañ nekk loolu nit naka la ko nit di waxee yéen yéen a nekk ci dëgg allahu akbar noonu nga xam ne ñun dañ suñu mbir doy na waar mbokk yi aaya boobu muy ihdina siraat almustaqim maanaa bi lan la mooy bi taalimin min allahi taala yaqulu al abdu fi jumlati ixwanihi almuminin sailan rabbahu baada tawassuli ilayhi bi hamdihi wa thanaa alayhi wa tamajudihi ginnaaw njàngale mu bàyyi ko ci yàlla tabaraka wa taala jaam bi taxaw moom it moom ak ay mbokkam di ñaan yàlla pour egg ci yàlla di ko tagg di ko kañ di ko màggal di ko sant di ko yëgal ne waruma jaamu kudul yow man ak samay mbokki jullit yow dong la ñu war a su su ñaan ndimbal ginnaaw loolu jullit bi muy ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla saxal ko ci njub an yahdiyahum hidayatahum lil islam yàlla jubal leen teg leen ci yoonu njub hatta la yanqatiu anhu ba dootuñu wàcc yoon wi loolu mooy siraatal mustaqim aaya bi liñ ciy jële mooy at targhib fi duaa fi duaai laahi taala wa tadarrui ilayhi fi lhadis ad duaa huwa al ibada yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam nee na ñaan mooy jaamu yàlla jaamu yàlla yëpp boo ko tënkee li ko ëmb li mu làq mooy jullit bi yëg ne moom mënul dara mënoo amoo yoroo olof yi dañuy wax ne yenn saa yi nga gis ku ñuy xas nan ko yow yoroo dara amoo say nelaw sax doyul jullit loolu la war a yëg ci yàlla amoo mënoo yoroo taqoo yàlla rek moo mën loolu moo tax waaja bañ ko ne ba ko ba ko waaja ne dinañ indi sama numéro ngi nii dee ma woo mu ne ko faale wu ma la aw ma ci yow soxla kooku kooku xam ngeen ne taw yi dëgg la am ah bu doon man lan laay wax incha allah moo yow kay bul wax dara damay dem ni kontaan na benn borom xaalis laa xam xoola ki tàggat borom xaalis bi pourtant ñëw na ci beneen xadis waa ji nga xam ne day dox ci àll ba ci àgg rek mu dégg benn malaaka di wax ak niir yi naan niir yi dem leen ngeen roose toolu diw dem leen ngeen roose toolu diw xoolal ay niir yàlla tàggat niir yi naan dem leen ngeen roose toolu diw waa ji daal dem dëkk ba di laajte kan mooy diw kan mooy diw kan mooy diw ba mu yegsi yow yaay diw mu ne waaw mu ne ah yow moom ah yow de ku baax nga ci as ci àll bi laa nekk dégg asamaan si niir yi ñuy wax ak ñoom naan nañu rosateelu diw kooku lan la def toolam bi xoolal da koy xaaj lii mu jël lii mu jox miskin yi yàlla di tàggat malaaka yi daan leen wax leen niir yi nañu rosa ji toolu diw kon kay nit bu dénkee boppam yàlla ay mbiram du dem du dara du ci du ci tardé wa man yatawakkal ala allahi mbokk yi wallahi suñu gëm alquran moo des de mais aaya yaa ngi fi wala yàlla mu ne wa man yatawakkal ala allah yonent bi ne law annakum tatawakkaluuna xaq ala allahi xaqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayr su ngeen gëmoon yàlla dëgg-dëgg gëm ngeen wàkkirlu ci moom ngeen jox ko seen bopp dañ leen wërsëgal nu muy wërsëgalee picc yi semaine bi damay jékki-jékki suñu école xam nga dañuy dindi benn baas mais robinet bi fa la picc yi di naan léegi gars yi tëj robinet bi une heure rek picc yi dañuy ñëw taxaw ci robinet bi wër robinet bi léegi comme man xam naa ne picc yi fa la ñuy naanee damay ñëw ubbi robinet bi ba ba foofu taa ma tëj robinet bi dama taxaw fa di xool picc yi affaire bi mujj maa def film ma jékki-jékki ma ne man mi yàlla ma tàggat ba taxaw fii di may picc yi naan gis nga de picc yi de heure naan bu jotee rek dañuy ñëw une heure kii xam ne fi ñuy tafsiré bu ñëwee rek ma daal di ubbi robinet bi picc yi naan ba ba màndi ma dem taxaw fële bu picc yi naanee pare ma ñëw daal di bale ndox mi ma ni ma jékki-jékki ma ni xoolal rek maa ngi liggéey sama liggéey de mais yàlla ma tàggat puisque ñii dañoo war a naan yàlla li mu ne wa man yatawakkal ala allahi wa was yàlla moo ko wax te wa ma min dabbatin fil ard illa ala allahi rizqa am na ñoo xam ne ñi ngi lekk ñi ngi naan liggéeyuñ picc yi fi ñuy liggéeyee ah ban société est ce que mos ngeen dégg ñuy grève mburu yokk na mos ngeen dégg ñuy yegg ñuy ñuy ñuy grève dugub amul ceeb amul mboq amul ndox amul gaz daa manqué ñi ngi lekk ñi ngi naan kenn déggul seen coow est ce que picc yi kese la xoolal xool leen yoo yoo yoo moo gën a tuuti yoo yi ngeen dëkkal yoo lu muy lekk ngooñ lu muy lekk ñax lu muy lekk gerte yoo lu muy dindi deret te muy bis mu nekk mu lekk añ ndékki reer tëdd wala yooyu duñ lekk nga indi sànke du tax duñ lekk nga indi pompe du tax duñ lekk loo indi ñu lekk loo pompe pompe pompe boo tëddee dégg yoo mu ne wiiw xanaa pompe woon day lekk yàlla li mu ko jox ci seeram du koy jël dem yàlla moo koy dundal ñooñu sax ñu ndaw lañ xoolal ñi nga xam ne ci àll bi lañ nekk gaynde yenn saa nga gis gaynde goo xam ne am na juróom fukki at te yàpp lay lekk du lekk ñax te bëñ bi gudd na ba toll nii te ñi- te fi mu nekk gaynde gi dund na ñaar fukki at ci àll bi mi ngi lekk guddig bëccëg lan moo koy jox mu lekk te yàpp lay lekk de lekkul ñax yii ñax yow tey boo bëggee xoolal ñun tey bu ñu bëggee yàpp ñun ñu toog fii rek bu ñu bëggoon reere yàpp tey nu ñuy def xam ngeen ne xoolal gaynde moom bëggee yàpp day ñëw am yàppam te day lekk ba desal te juróom fukki at gaynde gi def na ko ci àll bi te mi ngi lekk mi ngi naan te yàpp bees lay lekk du lekk sax yàpp bu nëb te bis mu nekk mu añ lekk naan parce que yàlla moo koy dund ay mbir la yoo xam ne doomu aadama yi bu ñu ci bàyyee xel dañuy réussir tey lan moo waral xeex bi ci mbedd yi lan moo waral course bi lan moo waral accident bi da ngay gis kuy njëkkante client ba ni rël rey nit ñi ah kooku bu gëmoon ne sama wërsëg yàlla moo ma koy jox li ma war a am tey dama yàlla wax na ko ba pare dama koy am est-ce que dina jar muy kërti kërti kon te alxuraan li mu ñu wax dëgg la wa ala llahi falyatawakkalu in kuntum muminin bu dee in xoolal xarfu lan la in xarfu lan la xarfu charte yàlla nee na bu dee gëm ngeen yàlla dëgg dëgg gëm wakkirlu leen ci man in kuntum muminin nag bu fekkee gëm ngeen moo tax foofu la mbir yi nekk moo tax yu bëri dañ koy wax nii mais du dem parce que ci wax kese lay def jëf dafay des il faut ñu jox yàlla suñu bopp ñu am kóolute ci yàlla ñu xam ne yàlla moom yow yaa mënul lépp mais yàlla inna allah ala kulli shay'in qadir inna allah ala kulli shay'in gis nga fi nga toog boo joxee léegi léegi yàlla sa bopp Abdoulaye Wade day xëy rek daan ne ana oustaz diw fekk yàlla moo koy wax dama ko dama ko soxla léegi na ñëw ñu naan yow yow fu mu la xamee ah yàlla moom moom xol yi yàlla mooy tàggat benn waay fële ñëw ne ko dama nga defal këram mbiram fekk yow yaa ngi fii di jaamu yàlla gis nga noonu gaynde gi toogee ci àll bi yàlla tàggatal ko am kéwél wala am nag mu ràq ko ba jàpp ko lekk noonu la la yàlla di tàggatalee mbir yi yàlla dafal la ko waaye boo joxee yàlla sa bopp waaw wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasb gis nga aaye ñetti aaye yàlla dañ ko wax ci benn saar naan ñu ku ragal yàlla wa man yattaqillaha nukaffir anhu sayyi'atihi ah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib te xoolal foofu histoire Moussa boo ko jàngee mu leer Moussa nekk na ci àll bu lëndëm réer xamatul yoon bi ànd ak njabootam Moussa comme ku ragal yàlla la lan la jële ci loolu ci réer googu mu réer ci àll boobu hmm? ak yonent la ci jële bénéfice bu rëy lan moo gën a màgg bénéfice yonent mu seen safara dem di ñaani xal wala muy fekk ku ko orienté mu ñëw yàlla ne ko yaa Musa inni ana allah déggal baa di de ba pare laa ilaha illa ana allahu akbar yaa Musa inni ana allah doyoon na mu ne ko laa ilaha illa ana amul benn buur bu dul man déggal baax li ma lay wax déglul bu baax li ma lay wax ah allahu akbar tawhid weesuwul loolu yal nañ yàlla jubal yal nañ yàlla won dëgg wërsëgal ñu topp yal nañ yàlla won neen wërsëgal ñu bàyyi ko waxtu jàng ñu julli rek barakallah ayo ñu julli ba insha allah salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh Thank you.